الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق فسوى ثم قدر فهدى فاتر السماوات والأرض والصلاة والسلام على رسول المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaqi wa fi riwaayatin innama bu'istu mualliman wa radiyallahu an asxaabihi wa xulafaa'ihi raashidiina wa taabiciina lahum wa taabici taabicihim wa am masaayixinaa bi ixsaanin ilaa yawmiddiin ginnaaw ba ñu sante yàlla di julli di sëlmal ci suñu sang ki nga xam moom mooy sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ñuy sant suñu ñaari waajur di nuyu kilifa diine yi fépp fu waay mën a nekk jàkkaarloog TFM religion di seetaan femme ak islaam ñu ngi lay fekk fi nga toog ñuy sukk suñuy bëti oom waaye di leen nuyu ci nuyu waa aljanna ëllëg ci nuyoo bi nga xam ne su ngeen bëggee jàmm ak bëggante ngeen koy waxante muy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu macha allah ngeen ànd ak ñun ci seen émission femme ak islaam ak ki nga xam ne moom mooy soxna Zeynab macha allah kon duñ def lu dul jox ko mu nuyoog mbokk téléspectateur yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan Zeynab maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay yaa Seyda mhm. di la ziar bu baax a baax mhm. di la bëggee mhm. di amaat mbégte ak kontaante ci euh, bokkaat bi ñu bokkaat plateau bii di Femme ak islaam donc may nuyu mbokk téléspectateurs yi nga xamante ni dañuy suivre euh, Télé média rawatina télé bii di TFM religion donc ñu ngi leen di nuyu di leen ziar am mbégte ak kontante fas yéene àndalaat ak yéen ci seen émission bii di Femme ak Islam donc Femme ak islaam nag lundi bu nekk mu war a nekk thème bu bees donc lundi passé ñoo di woon thème bu am solo Euh, ñu doon waxtaanee aussi lu am solo muy soxna euh, yaay Khadija nekkoon soxna ci euh, gën gi mbindeef di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc nga am lu bare bare loo xamante ne yaa Seyda yaa ñu ko doon wax ci ki nga xamante ne moom mooy soxna Khadija nekk suñu royukaay. donc comme ni nga ko waxee woon nga ni waxtaanu soxna Khadija nekkul loo xamante ni benn lundi rek doy na ci ba tax nga ni nañ ko continuer beneen lundi bi donc ñu war a ñëwaat tey aussi nga gën ñu yaatalal kan mooy soxna Khadija gën ñu xamalaatal kan mooy soxna Khadija waaye surtout gën ñu mën a fàttalil yan jikko mooy jikko yi nga xamante ni moom la soxna Khadija amoon ba tax na dañ lay delloowaat kàddu bi e, di la laajaat rek pour nga gën ñu leeralal kan mooy soxna Khadija ak soxna Khadija ban comportement la amoon ci biir këram surtout rawatina ak digganteeg borom këram bii di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam macha allah soxna Zeyna e, fi nga duggee am na solo ndax macha allahu taala émission bi passé ñu ngi doon waxtaan ci ki nga xam ne moom mooy soxna Khadija bintu Xuwaylid ibnu Asad ibnu Abdul Uzza ibnu Qusay ki nga xam ne moom mooy ummul muminin moom mooy yaay jullit ñëpp buñ ne ummul muminin mooy ki nga xam ne dafa matoon yaay mat ndey mat lépp ka mu jur ak ka mu jurut kenn du leen xàmmee macha allah lan moo ko may ndax yaatu mën a yaatale jël ñëpp uuf ne naa la jël alalam jël léppam def ko ci diine lislaam musul yëg boppam oyofal boppam oyofal li nga xam ne moom mooy alalam lépp ci kanamu sang bi sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam matoon nag li mu doon ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wa dem na ba nga xam ne bu daan am réunion ñu woo ko màkka bu daan dem Xadija mooy njëkk a taxaw solu muuru ba mu baax ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gunge ko fuñ ko woo ci jàmm gunge ko fuñ ko woo ci naqar Xadija moom mooy njëkk taxaw pour défendre yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon def ko bëggoon wóolu ko teg ko foo xamante ne macha allahu taala mm. xam nga lu ñu naan jóge fi mel ni yaa ngi fi ba tey mooy soxna Khadija. Mhm. ne macha allahu taala jugee na fi dem mais dafa mel ni mu ngi fi ba tey. Mhm. ndax jëfam ju rafet ji nga xam ne mu ngi ko doon jëf ñi nga xam ne ñoom ñooy jullit ñi macha allahu taala ndax ki nga xam ne moom mooy soxna Khadija moog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dund nañ vingt cinq mhm. cinq ans la ñuy dund ñoom ñaar waaye dund boo xamante ne soxna Zeyna ci mbégte la. ak jàmm ak lépp loo xamante ne rek. teraanga la ñoom ñaar dund nañ ko mm-hmm. en tant que jigéen en tant que femme en tant que jeeg ci biir këram mm-hmm. mu liggéey fa lu am solo parce que tey xam nga tey bu ñu fàtte ne euh, boroom kër dafa am àq ci soxnaam mm-hmm. waaye soxna aussi dafa am àq ci boroom këram ndaxte ki nga xam ne moom mooy soxna Xadija xam nga lislaam dafa am lu mu tëral soxna Zeyna li mu tëral ci li nga xamante ne moom mooy soxna si tey amoo droit sax génn sa buntu kër te tàgguwoo sa borom kër. soxna Xadija mosul génn buntu këram te tàgguwul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon tant en tant jigéen waroo génn sa buntu kër te tàgguwoo sa borom kër. Mm-hmm. parce que boo ko defee rek malaaka yi ñu ngi lay rëbb tànk boo dëgg. Mm-hmm. malaaka yi ñu ngi lay rëbb. Mm-hmm. di la ñaanal lu bon ba nga dellu si kon borom kër foor na. am na jigéen ñoo xam ne tey. balaa ñoo mën a génn rek seen boroom kër dem mhm. duñ ko tàggu nañ naa xaama gaaw parax-paraxi balaa mën a ñëw fekk yow li ngay gaawantu noonu ak fa ngay dem ba fa ngay ba ba ngay ñëpp si yëpp mhm. ay bàkkaar rek lañ la bindal kon borom kër dafa foor mhm. soxna Xadija musul génn buntu këram te tàgguwul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon boobu bokk na ci àq yi nga xam ne jigéen yoreel na ko borom këram beneen bi mooy ki nga xam ne moom mooy jigéen amul droit boroom këram soxla ko mu gàntu ko boobu tamit warul jigéen ndax macha allahu taala boo bañee malaaka yi dañ lay rëbb ba mhm. bër set te loolu yàlla nañ ci yàlla musal amiin ndaxte macha allah en tant que jigéen ñu ne sa borom kër warulaa soxla mhm. ngay bañ danga ko war a yombalal sa bopp mhm. soxna Zeyna macha allahu taala ba ci liggéey bi nga xamante ne ñu ngi koy liggéey amoo droit liggéey te sa borom kër bàyyiwu la nga liggéey parce que yow mii di jigéen li la yàlla teg mooy na liggéey ci biir kër gi Khadija du daan yor saagam di dem de Khadija ci biir kër gi la defooy mission yi tey fu ñu toogee naan Khadija Khadija mission bu mag bi mu def yépp ci biir kër gi la ko defee. ok ci biir kër moom même bi muy sëy bi muy sëy ki nga xamante ne moom mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm. nekkul woon di continuer aussi commerce bi nga xamante ne moom la doon def avant. non non parce que soxna Khadija. keroog ba nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa jël na ko soxna mhm. dafa jël lépp a teg ci suuf mhm. fas na ko sëye rek te mhm. yàlla tax mais jamono ji da ngay takk jigéen fekk ko ci liggéey mu ne la su ma naree bàyyi liggéey bi ma bàyyi la moom ko gën a te du yoon yow liggéey bi lislaam santu la ko mhm. lim la sant mooy nga toog ci biir kër gi mhm. waaye nag dafa fekk day fekk na ku góor ki tamit mu mat la wax dëgg laa bëggoon a wax parce que tamit tey <laughs> jigéen ñi am na ci ñi nga xamante ni bu ñu mhm. demee ba wax seen jëkkër yenn yenn wax yi quoi ne la tey man ma ma bàyyi la. Mm-hmm. mooy ma moo gën a yomb que ma bàyyi sama liggéey. Mm-hmm. mën na fekk ne peut-être situation bi moo laaj loolu. parce que dëgg la comme ni ñu ko waxee euh, góor mooy ki nga xamante ne moom moo war a yor jigéen. Mm-hmm. moom moo war a dundal jigéen. moom moo war a solal jigéen. donc moom moo war a defal lu bari jigéen. mais am na góor yi nga xamante tey. xam nga ki ko amul. Mhm. li may wax toujours jigéen bu la bëggee dina la mu muñal. donc ki ko amul sa jabar mën na la comprendre xam ni kat yow mii amoo ko. te ñu ci bari tamit parfois bu ñu xamee ne ñoom amuñu yenn moyen yi am na loo xam ne mënuñu koo def seen mënuñu koo defal seen i jabar. Mhm. te seen jabar am yenn porte yi nga xamante ne mën nañu dem liggéey. mais ñu mhm. bàyyi leen ñu dem liggéey. du dëgg donc mais gis nga am na jigéen yoo xam ne lan moo tax ñuy taxaw foofu. parce que seen borom kër. li ñu li war ci ñoom pourtant dinañ ko mën. Mhm. dinañ leen mën a sonal. Mhm. war leen a mën a jox ñuy lekk. Mhm. mais nam mu waree duñ ko def. peut-être ñoom ñu génn dem joxe ko ci biti. moo leen gënal. di jigéen boobu nag moom pour li muy liggéey du pour jëkkëram. mën naa ne sax pour boppam mais pour njaboot gi la. parce que am na góor ñoo xamante ne ñu ngi liggéey war a yore seen njaboot. yoruñu sax seen soxna ba yor seen i njaboot. donc loolu moo tax parfois tamit jigéen ñu bari di daw di daanu takk seen ligg pour bañ seeni seen i njaboot aussi ñee kenn parce que dañuy xam ne seen i njaboot dañu am yeneen nawle maanaam bu ñuy jàngi ci école ba dañ fay fekk seen i morom mm-hmm. te ku sañoon say njaboot du ñee beneen njabootu jàmm jigéen ñi takku ji yëpp di forcer loolu pour seen njaboot ñoo tax ñu koy ñi tamit bu góor bu jigéen taxawee ba ba wax lool rek ñu ci bëri dañ la la ñu war def mm-hmm. defal seen jabar wala la ñu war defal seen i njaboot moom lañ deful xam nga jamono moo xaw a changé. Mhm. xaw ma nit ñee changé. Mhm. mais diine lislaam li mu tëral daal. Mhm. li nga xam ne ñun ci diine la ñuy sukkandiku. nit ñi nag léegi am na ñoo xam ne seen dund bopp lañuy dund seen diine bopp. dëgg la mais ba ci yow liggéey bi ngay defi. il faut nga am si sa ndigalu borom kër. dëgg la doog koo def kon da ngay naxante. luñ naan góor moo xalee yam. boo ko naxee rek am li nga bëgg. macha allah góor ñu naqaree nax de <laughs> xam nga tey jii. Mhm. yow euh, Zeyna am na loo xam ne tamit duma ko d'accord. Mhm. en tant que jigéen même bu dee sa borom kër. Mhm. may na la ngay dem di liggéey. am na loo xam ne yaa koy bañ. fexeel ba bum la jiitu sa biir kër. dëgg la ndax xamal ni liggéey bi liggéey la. waaye liggéey bu mag tey mu ngi may xaar tey sama même yow bu dee fexe nga ba sa borom kër jiitu la ci biir kër gi. boo yegsee ah sang bi baal ma àq de. parce que foofu kat daf laa waroon fekk. nga sangu sañ sañse toog di ko xaar. dëgg la waaye kon nag moom jiitu na la. Mm-hmm. te yow loolu sa mission la en tant que femme. en mm-hmm. tant que jigéen en tant que jeeg. Mm-hmm. loolu sa rôle la. dëgg la kon boo fekkee sa borom kër njëkk la waaj. a sang bi. baal ma ak wax ju neex sarax la mm-hmm. yàlla mu ne xawlu maarufun wa maafira mm-hmm. xayrun min sadaka mm-hmm. yàlla mu ne wax ju neex moo ma dàqal sarax dëgg la kon ci kan lañ ko soxlaa ci soxna en tant mu koy wax borom këram kon jigéen waxam tamit du ñagas du diis sang bi baal ma àq de wàcc nga jéggal ma de nga dem. embouteillage bee ma téye embouteillage bee xam mhm. nga am na góor ñoo xam neex nañoo nax. Mhm. parce que yow l'islam moo ne la toogal ci kër gi. mais kon jamono dem na ba nga xamante ne loolu amatul boo yegsee li nga ko war a njëkk def. Mhm. mooy baal ma àq. waaye am na jigéen ñoo xam ne. bu ñu yegsee seen biir kër ñoom duñ defar dara seen borom kër. bon mhm. bi la ñuy woo mhm. tegalal ma sama boroom kër lekk mhm. indil ko ndox mu naan lii wëg lii loolu warul soxna te soxna Xadija moom naka la ko daan def Xadija soxna Xadija macha allahu taala da daan toppatoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ci yi yim daan sol sax soxna Xadija moo ko doon xolal xolal ko dàll yu rafet fompal ko lépp peñal ko karawam ndax soxna dafay am jotu borom kër mais loolu ci jóge la bokk sax yaa Seyda parce loolu yow jigéen yow la war sa borom kër yaa ko war a yére bi muy sol xool dàll ba mhm. xool kawas ba mhm. doo bàyyi dara mhm. xool bopp ba ndax ki nga xam ne moom mooy góor bu amee soxna ci biir këram fu mu génn war nañoo xam ne kii am na soxna dëgg la macha allah ba ci sa tànk boroom kër sa danga ko war a raxas ndax mooy sa sang dëgg la wàcc nga dem nga sangu sañse ba mu baax laa sa parfum bu neex indi lekk taajal ko mhm. indi ndox taajal ko mhm. waaye bu koy lekk bu koy naan na ànd ak wax ju neex soxna Zeyna ah sëñ bi sonn nga de mhm. massa coono naka liggéey bi naka foo jógee dalal xelam parce que yàlla wax na ko ci alquran boo gisee góor di uti macha allahu taala ar rijalu qawaamun ala nisa bima fadala allahu baaduhum ala baadin wa bima anfaqu kon moom la lislaam teg ne na dem uti kon bu uti jee ba ñëw war na fekk jigéen bu mat jigéen ci biir kër koo xam ne mooy dalal xelam mhm. parce que la muy uti mhm. yow yaa tax ak njaboot ji xamoon nan la def ba am ko mhm. da ngay génn gis boroom kër goo xam ne day liggéey di yannu ay saaxu ñi koy jànni di ko wax lu ko métti loolu mu muñ ko boo gisee mu muñ ko kan moo tax ay njabootam dëgg la góor ñi dañoo sonu de ñu ngi daj lu nekk ci àll ba te kenn tegul leen ko kudu seen i njaboot ñu leen di teg ay métit ñu koy muñ ngir seeni i njaboot kon kooku ngelawaay bu yegsee bu ne ko facture courant baa ngi nii de facture ndox bi gaz bi jeex na indil ko musiba boo xam ne xamul fan la koy waxee mm-hmm. en tant que jigéen mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da koy dalal fu mu toll mm-hmm. chaque jour xadija da koy dalal kon sa borom kër bu wàccee dalal ko naka fi nga jógee mbaa sonnoo indil ko lekk mu lekk indil ko naan mu naan yenn saa yi nga bës tànk yi mhm. nga indi ndox raxas ba mu set dëgg la jigéen dafay am jotu borom këram mhm. daf koy toppatoo ba nga xam ne sa absence du ko sentir moom mi ki nga xam ne moom mooy borom mhm. këram yonent bi sallallahu alayhi wa sallam musu ko sentir absence absence wu Khadija musu ko sentir parce que affection lay indi sa diggante moom macha allah kon soxna noonu la war a doxalee ci biir këram mais lépp bu ko bàyyil bon bi kon yow bu bon bi nangoo sa jëkkër rek yaa ko def dëgg la bon bi am na fi nga mën a yem ak moom mhm. mais am na foo xam ne yow mii di jeeg yaa fa mën a egg ak sa borom kër waroo faa yónni kenn waroo faa xajal kenn mhm. parce que daf laa takk indi la ci biir kër gi mhm. dëgg la yaa Seyda donc sànq danga wax lu am solo mhm. mooy tey sa sa borom kër bu demee liggéey ba ñëw li nga war a def mooy dalal ko jàmm sante ak moom maanaam xool ba xam amul lu ko metti bu fekkee am na lu ko metti jigéen bu nekk feemam xam nga fan nga ko war a mën a jaar ba dalal ko ba xelam dal ba xelam ñëwaat mais foofu euh, war nga cee wax ak surtout ñi nga xamante ni seen i borom kër ay muudu muudu lañ parce que ñoom tamit sonn nañ nañ mhm. parce que da nga ciy gis góor ñi nga xamante ni tey mhm. ñu Sénégal parce que ku sañoon tey boo sañoon sa réew fa ngay toog fa ngay liggéeyee nekk ak say soxna nekk ak say njaboot di gis mhm. sa yaay ak sa papa donc bu ñu demee ba dem ci beneen réew di fa liggéeyee parce que ñàkk nañ pexe donc ba tax na tey ñoom dañuy wax dañuy sonn foofu da ngay gis dañuy daw six heures du matin la ñuy yeewu ah boo moytul ay minuit une heure du la ñuy dugg seen kër et terewul tey seeni soxna ñu leen di teg fitna yoo xamante ni chaque jour ñu ngi leen di jéem a teg loo xamante ne attanuñ ko wala ñu ko waxuma seen soxna mais parfois seen yaay yi aussi sonal leen mhm. parfois seen euh, seen seen i seen i seen i sœur mhm. comprendre nga mhm. parfois seen jarbaat moo xam mais ki la war a gën a mën a jàppale mooy sa soxna bi nga xamante mhm. euh, sa secret yu bëri mën naa ne moom moo moom moo mhm. say problème yu bëri moom moo mhm. euh, jigéen bi nga xamante ni moom nga jëlee kër yaayam ak mu bëgg nga bëgg ko yaakaar naa moo la war a mën a gën a jàppale la war a gën a comprendre que keneen nga xamante parce que ñeneen ñi seen bëgg-bëgg rek la ñuy gis donc am na ci góor ñi nga xamante ni i jabar wax dëgg dinañ leen di teg attanuñu ko mhm. wala ñu teg leen problème yoo xam ne ñoom fa ñu nekk liggéey sax dañuy dem ba benn instant dañuy perturbé du dëgg mhm. te loolu taxul ñu naan soxna comme ni nga waxee jigéen da war a jàppale sa borom kër na nekk jàppalante quoi mhm. mais surtout aussi jigéen ñun jigéen ñi d'accord parce que ñun dañoo war a nekk comme seen yaay dañoo war a nekk ñi nga xam ne comme ñi nga ñi ñu bokk ak ñoom ndey ak baay parce que oula Oustaz Alioune Sall daf koy wax am na benn ni ngeen wax war a comprendre te yéen ñaar boo xamante ne war na fa am ba nga xam ne problème yu bëri ñuy dégg fii euh, euh, war na mën a ñàkk yaa Seyda su fekkente ne dëgg dëgg dëgg amour am na ci diggante boobu mhm. comme diggante Seydina Muhammad ak soxna Khadija xam nga soxna Zeyna euh, jabar dafa am soxna am dëgg la duñu benn mhm. jabar mooy ki nga xam ne foo ko fekk dafay jàmbat mhm. bëri wax ba pare rëy. Mm-hmm. mais soxna mooy ki nga xam ne. Mm-hmm. foo ko fekk day nekk ci say soxla. Mm-hmm. xër ci yow naw la ba noppi nangul la. kon ñaar yooyu duñu benn. dëgg la ku nekk da ngaa war a tànn sa morom. soxna dëgg-dëgg. dafay dalal borom këram parce que yàlla def ne. lu tax ma may leen soxna yi pour bu ngeen dugg see ci biir kër gi ñu mën leen a dalal dëgg la kon soxna loolu mooy roram yaa xam sa jëkkër nekk fi walla nekku fi wala mu nekk Europe même boo ko déggee ci téléphone bi sax war nga ko dalal. dëgg la war nga ko may courage. Mhm. parce que foofu tamit moo gën a métti. kon ni nga ko waxee. Mhm. dañuy xëy suba balaa ñoo dugg seen biir kër guddi. Mhm. te kenn waralu ko kudul seeni i njaboot. njaboot kon ko sax moo gën a soxla li nga xamante ne moom mooy dal. ak ki nga xam ne tey borom këram bu wàccee daf koy fekk ci biir kër gi. am na soxna yoo xam ne ni ñuy taajee lekk sax da leen di jéppi. dëgg la. doo bëgg a lekk lekk bi sax. Mhm. ndax dañuy mel ni ku la jépp ñu la koy tegal. Mhm. kon loolu yëpp tamit da ciy joué. Mhm. macha allah ndax ki nga xam ne. moom moo yor sa caabi aljanna mhm. ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne jigéen bu fonkee waxtu juróom mhm. woor weeru koor mhm. sàmm boppam xam boppam am borom këram tarbiyu ko ci lu neex yàlla nag la wax ci lu neex yàlla parce que jigéen balaa ngaa tarbiyu sa borom kër dëgg-dëgg dafay sa borom kër di la woo ci lu neexu yàlla te yenn saa nga gis nit mu ne man de sama boroom kër moo ne ma xeesal la kon bëgg na ko rek damay xeesal ndax lu neex sa borom kër rek neex na yàlla ma ne ko déedéet juum nga parce bu dee tey sa borom kër daf na la xeesalal moom laa bëgg mhm. te mu leer na la xeesal bi yàlla da ko araamal nga def ko mhm. boobu yàlla du ci ànd mhm. kon nga topp sa borom kër ci kaw lu neex yàlla nga tarbiyu ko bis boo faatoo mu gërëm la yonent bi mu ne nit ñee fay nekk di la jooy waaye yàlla mu ngi lay tànnloo ban aljanna nga war a dugg ci aljanna yi kon loolu lan lan lan moo ñu ko mën a may ci biir sëy bi rek lañ ko mën a amee waaye góor ñi tamit bu buñ ko seereel nañ ko yolomal ndax kiñ jël teg ko ci sa loxo ne la kii yow yaa yor caabi aljanna bu dëgëral aljanaam mhm. ndax yàlla suñu borom sax nee na walaw yu aaxisullahu naasa bi zulmihim maa taraka alayha min mhm. dabba walakin yu aaxiruhum ila ajali musamman fa isa jaa ajaluhum laa yastaaxiruuna saatan wala yastaqdimuun mhm. yàlla mu ne bu doon nit ku nekk loo ma def ma fayu ci saasi kon mbindeef desatut ci kaw suuf maa la wax loolu ndax chaque jour ngeen tooñ ma dëgg la chaque minute ñu tooñ yàlla mhm. yàlla mu ne waaye ku ci nekk dama laa àppal nag mhm. yàkkamtiwuma kenn mhm. te bu sa àpp jotee doo tardé waxtu doo jiitu waxtu kon yàlla la ñuy tooñ mu ñuy baal ngir bëgg mu dugal ñu aljanna rawatina yow mii di góor ñu yëkkati soxna si ne la mu ngi nii aljanna mu ci sa loxo bu ko seereel nag dëgg la bul yàq liggéeyam kon na nga ko yombalal aljanaam bu macha allah kon jigéen ci biir sëy bi benn bunt mu ngi fa ci buntu aljanna mhm. li la koy may mooy nga toppatoo sa borom kër mhm. bul génn te tàgguwoo sa borom kër mhm. bul def lu mu yëgut ndax bu boobaa am nga bàkkaar bu la sàkkoo bul bañ ndax bu boobaa am nga bàkkaar mais bu la sàkkoo bul bañ boobu yaa sayda am na ci gu am na ci jigéen ñi nga xamante ne tey bu ñuy bañal seen jëkkër nekku ni daf leen a neex rek ñu bañal seen jëkkër am na ci ñoo xamante ni parfois mën nañu feebar wala peut-être sentir ñu seen bopp parce que tamit nit ki du chaque jour rek ngay sentir sa bopp du chaque jour ngay nekk à l'aise du chaque du chaque jour aussi ngay ne am am wér yaram am na ci ñi nga xamante ni parfois mën nañu feebar moo xam seen bopp mooy metti moo xam seen biir mooy metti ba instant boobu seen yaram mën na mën na bañ mën na bañ tal dara quoi donc ñooñu nga xamante ni tey peut-être loolu dal na leen amuñu droit ne seen jëkkër ko na leen mu muñal ba beneen jour wala loolu ñoom it dinañ ci am baakaar xam nga xam nga réeroo amut ñàkk waxtaan am ñàkk waxtaan moo am dëgg la yaa ngi nekk ak sa borom kër ci biir kër gi mm-hmm. moom boo feebaree xam na mm-hmm. sa bopp bu la méttee xam na mm-hmm. kon foofu en tant que góor moom moo waral dawal yërmande yaa ngi comprendre mais loo mënti feebar yow mii di jigéen bu dee sa borom kër comprendre la tamit yow fekk si ko rek macha allah parce que même boo ci dee sax sa aljanna taxaw na mét na dee même ci dee sa aljanna taxaw na. Mm. macha allah loolu tamit nañ ci bàyyi xel. Mm-hmm. waaw kon ki nga xam ne moom mooy góor moo la war a jàppale. Mm-hmm. moo war a seetlu xam ne li kii kat mënut. Mm-hmm. waaye nag bu dee moom mënut a comprendre. yow mi jigéen loolu tamit du la rey. du la rey parce que même boo ci dee aljanna taxaw na parce que da nga dul jéem a dab bànneexam. waaw am na ñoo xamante ni yaa Seyda ñoom lan la ñuy wax. nee nañ <laughs> am na ci ñi nga xam ne wax dëgg dañuy dund diine bi xam nga parfois tamit nga gis ñoo xamante ni dañuy dund diine bi ba def loo xam ne daal parce que li ñuy wax toujours tamit diine bi mettiwul torop noonu am na soxna yoo xam ne wax dëgg li ñuy kaas mooy du ñu bañal seen borom kër mais xam nga tamit tey sëy dafa am yoon dëgg la du dëgg mm-hmm. am na yoon boo leen war a jaar étape par étape mm-hmm. tey maanaam bu bi nga xamante ni ki jigéen ki mu ngi préparé wu quoi mm-hmm. pour séq ak borom këram yaakaar naa dañoo war a jaar étape par étape mhm. nànk nànk nànk nànk ba ñu yegg fa nga xamante ni kat peut-être foofu la war a yegg mhm. mais am na jigéen yu bari ne lu ñuy kaas mhm. mooy seen borom kër yi ñoom dañuy ñëw rek ne kon kon kon salaamaaleykum nga tijji bunt bi rek ñu fas yéene yokk xeet bi te am na ci ñu bëri ne ñoom loolu daf leen parfois dañ ci am problème wala daf leen ni gaañ wala yooyu daal donc mm-hmm. ñoom nee nañ bëggoon nañ nga waxtaan ak góor ñi ñu ñu ñuy def nànk-nànk daal te ñu si bëri ñooñ pourtant diine bi la ñuy dund mm-hmm. ñoom dañ naan waaw da ngay ñëw rek salaamaaleykum rek fas yéene yokk xeetu yonent bi nekk ci la ñu waaw xam nga Zeyna boo mm-hmm. demee ci suratul baqara euh, alxuraan bàyyiwul dara yàlla mu ngi naan nisaa ukum xarsun lakum mhm. faxtu xarsakum anna shiftum mhm. waaye wa qaddimu li anfusikum mhm. yàlla mu ne góor ñi jigéen ñi seeni tool lañ ki nga xam ne mooy sa soxna dalaa lew mu ne seeni tool lañ mhm. kon bàyyee leen seen tool nu mu leen neexee mhm. waaye nag la mhm. waqaddimu li anfusikum ci li nga laajte loon na ngeen jiital seen bopp avant buntu sax balaa nga ciy dugg di nga ne koŋ-koŋ bañ na la entrée nga doog a dugg kon loolu yëpp l'islam jàngale na lépp loo gis étape par étape escalier par escalier la ba nga egg fa nga jëm macha allah d'accord donc yaa Seyda sànq tamit am na am na wax nga lu lu am solo muy soxna Xadija ni nga xamante ne tey moom la yore woon ay njabootam morom ñu bari umpale nañ xamuñu carrément naka la ñu war a yore suñuy suñ suñuy njaboot naka la ñu war a yaree mhm. suñuy njaboot mhm. est-ce que toog ci kër gi rek la mhm. mooy mooy yar njaboot est-ce que yóbbu ci école ba kese mooy mooy yar njaboot naka la soxna Khadija doon yoree yare ay njabootam ci biir kër gi yaa Seyna macha allahu taala xam nga Zeyna soxna Khadija dafa yaroon ay njabootam ci biir kër gi al ummul madrasa yaay mooy école kon en tant yaay war ngaa nekk école boo xam ne mhm. tey doom bu génn rek dinañ ne macha allah mhm. doom ji kat doomu Zeynab la mhm. loolu li la koy may mooy tànn parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn waay dafa ñëw indi doomam ne ko yaral ma ko yonent bi ne ko paase na jabar ji amaat doom liir bu tooy xëpp mu gàddu liir bi rek indi ko yonent bi ne ko kon kee paase na kii tey la juddu Mm-hmm. yaral ma ko mm-hmm. sallallahu alayhi wa ne ko ba tey paase na saxaaba bi ne ko kon yar bi moom kañ lay doon mm-hmm. yonent bi ne ko ca yaay ja dëgg la ca tànn ba dëgg la kon kii di góor dafa war a tànn soxnaam waaye kii di soxna it dafa war a tànn borom këram kii góor lan la war a tànnee soxnaam soxna Zeyna alxirsu ala ixtiyaari zawj as saaliha bi ci njëkk mooy nga tànn ki nga xam ne moom mooy sa yaayu doom xam nga dañ ne jigéen mën nga ko tànn ngir ñeent mën mhm. nga ko tànn ngir diineem mhm. ngir alalam mhm. ngir askanam ak lan ak ak taaram macha allahu taala yonent bi mu ne fas far bi zaati diin waaye man de yonent bi tànnuloo naa leen boroom diine ndax diine dafa ëmb lépp dafa ëmb taar dafa ëmb alal dafa ëmb askan bu bu baax diine lépp la ëmb xam nga yonent bi daf ne maa leen ne may tukkuloo gàncaxu sën ñu ne ko lan mooy gàncaxu sën xam nga tey boo demee ca sën ba sa mbalit ba mhm. bu tawee ba sebeti mhm. am na beneen fuleur bu rafet buy sax ca ca ca mbalit ba boo ko gisee da nga koy bëgg ndax rafetaayam mhm. fekk fa mu soqee koo baaxul dëgg la mooy jigéen ju taaru mooy góor ñi nga xam ne dañuy dugg ci jigéen ngir taar taaram yéem la lool fekk jikko ji baaxul dëgg la loo taaru taaru rafet jikkoo ko gën kon dafa am lu ñuy tànn ci soxna mooy li nga xamante ne moom mooy jikko ak diina ju rafet parce soxna si moo la war a indil ay la lañ naan jigéen ju baax li yàlla naan albaladu tayyibu mhm. yaxruju nabaatuhu bi izni rabbihi mhm. foofu yàlla jigéen la bëgg a wax mhm. jigéen ju baax dañ koy méngaleeg suuf su naat ndax suuf su naat moo la mën a jox gàncax gu baax dëgg la kon ki la war a indil ay njaboot kooku da nga koy tànn soxna Zeyna mu ngi mel ni tey ca Omar ibnu Xattaab ba mu nekkee amirul muminin di doxantu dégg benn benn xale di wax ak yaayam yaay ji da doon meew mhm. yaakaar naa dégg nga histoire boobu mhm. mooy yaay ji ne ko doo ma indil ndox ma yokk ko ci soow bi ngir bénéfice bi gën a bëri waaw doom ji ne ko yaay loolu euh, Omar da koy tere de. Mhm. yaay ji ne ko kan mooy Omar doom mu ne ko mooy amirul mu'minin mhm. mu ne ko waaye amirul mu'minin gisuñu. Mhm. doom ji tontu yaayam ne ko bu ñu amirul mu'minin gisul. yàllaay Omar mu ngi gis. macha allah allahu akbar. Omar wax jooju mu dégg. mu dem ci kenn ci ay njabootam ki ñu naan Abdallah. mu ne ko kaay jël xale bi tànn ko mu nekk sa soxna. lan moo tax Omar def loolu parce que dafa gis ne ragal yàlla ak diini mu ci xale bi mhm. tey xale boobu moo jur kiñ naa xisaam mhm. xisaam jur Layla mhm. waaye Layla boobu moo jur Omar yam nu Abdul Aziz mi ñuy dégg ki nga xam ne nee nañ bu dee dañuy tànn juróomeelu xalifa yonent bi sallallahu alayhi wa ci mbaax ci rafet jikko Omar ibnu Abdul Aziz la ñuy tànn lan moo ko ko may mooy soxna su baax kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tànn soxna Mm-hmm. muy soxna Khadija. Mm-hmm. mu jural ko ay njabootam. Mm-hmm. waaye soxna Khadija dafa yar ay njabootam. yar leen ci diine. yar leen ci maanu. xam nga tey boo déggee Cheikh Seydi Hadji Malick mu ne Khadijatu naqiyat an saa iri doxe mi mu ne Khadija dafa set wicc wicc wicc wicc ci lépp loo xam ne dañ koy tuumaalee jigéen. Khadija da daan muur ay cëram. Mhm. xam nga tey xale jigéen ñi. Mhm. yar dafa manqué ci ñoom. dëgg la dañuy dox di tuuj seen ween. Mhm. di wane seen i cër ci mbedd bi. di sol loo xamante ne yow mi jigéen sax danga leen rus a xool waxatuma laa góor. dëgg la parce yaruñu leen. est-ce que ñooñu ba ñuy génn seen kër bàyyi nañ fa seen i yaay ak seen pap danga naan ñii ba ñuy génn bàyyi ñu fa kilifa. dëgg la kon jigéen ci boppam li njëkk mooy dafay muur cëram. Khadija lim njëkk yare ay njabootam mooy dañuy muur seen cër. xam seen bopp. Mhm. xam li ñu doon en tant que jigéen xam fan ngay teg sa tànk. Mhm. ndax bu ñu fàttee ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, dafa mus a toog ak ay saxaabaam. Mhm. ak ay doomam ak waa këram. Seydina Omar dugg si. ba mu dugg see mu ne du yoon de lii moom du yoon Muhammad lii du yoon. yonent bi ne ko ci lan mu ne ko en tant que ay soxna yonent. en tant que ay doomu yonent toog. te kenn du leen ràññee ak ñi nga xamante ne ni gëmuñu gëmu gëmuñu la loolu du dëgg du yoon parce que en tant que soxna yonent di ay jullit war nañ leen ràññee ak ñi mm. nga xam ne duñ ay jullit dëgg la yaa ngi dégg mm-hmm. kon yàlla dafa fonkoon waxu Seydina Omar mm-hmm. yàlla wàccee aaya mm-hmm. yaa ayyuhan nabiyyu qul li azwaajik mhm. wa banaatik wa nisaa'il mu'miniina mhm. yudniina alayhinna min jalaabibihinna mhm. zaalika adnaa an yu'rafna falaa yu'zayna wa kaana allaahu gafuuran rahiima macha allah kon waxu Seydina Omar boobu moo tax yàlla ne ee yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais ni yonent bi def na ko yàlla lu xew mu ne ko qul li azwaajik waxal say soxna ak say doom kon bu yàlla yamoon foofu rek dinaa ne mo yàlla ay soxnaam ak ay doomu yonent bi rek la wax man waxuma na ko wan nisaa il ak képp koo xam ne jigéenu jullit lañ ñuy mm-hmm. muur seen bopp mm-hmm. ñuy muur seen yaram mm-hmm. nañuy muur seeni cër ndax jigéenu jullit war nañ ko xàmmee ak jigéen ji nga xam ne du jullit ci lan lañ leen war a xàmmee ci comportement ci muuru ci dal moo tax soxna Xadija dafa yare loolu ci ay njabootam ndax yar gi mu yar soxna Fatima macha allahu taala Fatima da doon dund dund bu rafet. Mhm. ci ragal yàlla ci maanu ndax yaakaar naa ni. war ngaa dégg histoire boobu nga xam ne yonent bi nee na Fatima juz u min nii Fatima xaaj la ci man lan moo tax ndax ko gi nga xam ne Sayyidatuna Khadija def na ko ci doomam Fatima mhm. ndax tey foo tuddee jigéenu jullit ñi sa xel dem ci Fatima mhm. ki nga xam ne mooy sama turandoo mhm. di bàyyi Ousseynou ak Assane moo tax tamit yow miy góor tamit bul toog ci kër gi wañ sa loxo ne jigéen rek a war a yar ndax fii luy suñu aada sa boo defee dara ah bu sa papa ñëwee naa la boole bàyyi ba sa papa ñëw parce que fii Sénégal loolu lay xam kon yow miy góor bul wañ sa loxo ne yaay ji rek moo war a yar mhm. parce que am nga ci part de responsabilité dëgg la ndax yonent bi nee na ki nga xam ne mooy góor mhm. bu bëggee am lu ko doy sëkk sëkk sëkk ci bàkkaar mhm. na toog bañ a sàmm ay njabootam rek lu rek doy na ko ci bàkkaar ak mbugal ndax kullukum raain wa kullukum mas'ulun an raaya nit ku ne sàmm nga te keroog yàlla dina la taxawal laaj la naka nga sàmmee woon say njaboot kan la koy laaj yow muy di góor kon say njaboot war ngaa xam ci lan lañ nekk ci solin yi ñuy solin en tant que jigéenu jullit mhm. ndax yonent bi mu ne nga xam ne am na ñaari doomi jigéen mhm. wala ñett nga yar leen fa leen war a yaree yonent bi sallallahu alayhi mu ne keroog yow mal xiyaam man ak yow mu tollool ñaari baaraamam wa damma asaabiahu mm. mu ne man ak yow nii lañuy àndee dugub biir aljanna ku lan ku am lan mu ne ku am doom bu jigéen mm-hmm. moo xam benn ñaar ba ñett mm-hmm. nga yar leen fa leen war a yaree mm-hmm. def ci ñoom ragal yàlla def ci ñoom maanu def ci ñoom jikko ju rafet nga muur leen ñu dem sëy mhm. ti bi mu ne mën a yow nii lañuy àndee dugg biir aljanna kon loolu doom bu jigéen rek moo la ko mën a may mhm. kon bu la yàlla mayee doom bu jigéen wax lu ci sa àq ba mu mat sëkk yow muy góor bul wañ sa loxo ne yaay ji na yar ndax yow yaa ko ci mën a jàppale yow mi nga xamante ne yow yaay borom kër nga jàppale yaay ci li nga xamante ne moom mooy yar xale bi war naa fexe ba xam li nga xam ne moom mooy julli juróom war naa fexe ba woor weeru koor am na mag ñoo xam ne du ñu julli du ñu woor parce que ci yarin bala kon xale yi dañ leen war a yar ci biir kër wan leen ban diine ngeen bokk diine lislaam hmm. dafa am lu war hmm. ndax yow mii di waaju mën nga jaamu yàlla de di jàpp di julli foog na sa lépp mat na waaye keroog yow mal xiyaam sa doom moo lay taxawloo te moom moo lay yóbbu biir jahannama mm-hmm. yàlla dina ne Fatima lu tax doo daan julli ah man de sam papa musuma ko wax yàlla ne àndal ak sa papa nga dugg biir jahannama yàlla nañ ci yàlla musal hmm? kon yow mii nga xam ne yaay yaay wala papa dañ cee war a taxaw ba mu mat sëkk sëkk sëkk parce que yow mii la ko yàlla di laaj mm-hmm. naka nga sàmmee woon sa soxna dinañ la ko laaj mm-hmm. naka nga nekkee nag soxna si dinañ la ko laaj waaye naka nga sàmmee woon njaboot ji tamit dinañ la ko laaj en tant que yow mii di góor mm-hmm. kon soxna Khadija def noonu lépp lu ko war mm-hmm. yar na ay doomam mm-hmm. macha allah ba foo leen gis xam ne ñi Khadija mooy seen waajur macha allah yaa Seyda indi aaye bu am solo di ci xamal ne que ni yàlla suñu borom daf ne képp koo xamante ni jigéenu jullit nga rek dangaa war a muuru du dëgg donc ba tax na soxna Khadija nekkoon na jigéen bi nga xamante ni da daan muur ay cëram waaye nekkoon na aussi jigéen bi nga xamante ni tamit loolu da koo yaree woon ay njabootam fan yii dafa am benn rumeur bu doon daw. Mhm. mooy euh, soxna Penda mu doon wax ne. Mhm. Euh, muuru dafa nekk loo xamante ni aada naar yi la. du dëgg. Mm-hmm. donc mu ni euh, donc nekkul loo xamante ni daal lu obligatoire la ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy julliti. Uh-huh. et ba tax na suñu moroom ibaadu yu bëri tey ñoom tamit ñu ngi ci doon aalu. Uh-huh. di wax te am na ñu bëri ñoo xam ne aussi loolu la yaakaar. Mm-hmm. dañoo jàpp ni muuru comme yëfu naar yi la donc dafa am dañ ñun dañuy nekk di leen toppandoo. Mm-hmm. ci muuru bi nga xamante ne moom la ñuy def. et comme li ñuy wax kenn mënul matal lépp. dëgg la. li nga xamante ne moom la suñu borom subhanahu wa taala bëgg lépp lépp mhm. mënuñu koo mënuñu koo matal mais comme ni nga ko waxee muuru dafa nekk loo xamante ni comme ni woor nekkee farata ci jullit bi comme julli nekkee farata ci jullit bi mais noonu la tamit muuru ci euh, ki nga xamante ne moom mooy jigéenu jullit bi moom tamit loolu moo ko war loolu tamit war nga ñu cee gën a leeral ñu xam ne muurul nekkul ne nit ki daf lay neex rek nga def ko parce que léegi tendance lañ ko def dëgg la ibaadu bi léegi tendance lañ ko def mhm. parce que da ngay gis koo xamante ne tey mhm. aa mhm. mu ngi soloo doo xamante ne mën na sol robam bu gàtt wala mu sol loolu loo xamante ne lu yéeme la jël ko la muuru ibaadu pourtant pigé ba mu baax ay fekk ni du loolu nga gis koo xamante ne sax dafay dugg ci benn kër këru ibaadu mhm. parce que tey sa genre gi nga xamante ne ñu ngi seen biir kër di sëy mhm. ku leen fekkoon seen biir kër ñoom kese danga naan kii du Zahra bi ma xamoon du dëgg mhm. parce que yaakaar naa sa biir kër am nga droit sol lu la neex sa biir kër am nga droit mel nu la neex. Mhm. am nga droit sax coiffer sa karaw. Mhm. sa biir kër mhm. pour bégal sa borom kër. du dëgg parce que parce que parfois nga gis boo demee yenn salon yi wala nga dem salon ibaadu yi. nga fekk ibaadu yi dañuy coiffer seen bopp noo xamante ne da ngay gis ku toog naan ko xanaa yow doo ibaadu. mu leer na tey booy génn da ngay jël sa kol nga muuru. mais boo demee sa biir kër nu la neex mën nga mel. nu la neex mën nga sol. et foofu dama jàpp moo tax mu teg ñu loolu. parce ne tey moom la sa a gis ñeneen ñi rek dootul safati donc kon bu ñu santee ñuy sol lu jot mm-hmm. te du muur suñu cër bu ñu nekkee suñu biir kër mm-hmm. ah, ci moo xam suñu suñu suñu suñu jëkkër mm-hmm. wala ñu nekk suñu biir kër ñun kese ñu war a mën nu ñu ñu war a mel nu ñu neex yaakaar naa loolu sag la ci ñun et yàlla suñu borom aussi daf ñoo bëgg a jàppale loolu war nga ñu cee bu baax a baax yaa Seyda ñu xam kan moo war a muuru ak muuru lan la ci nga xamante ne moom mooy jigéenu jullit bi yaa Seyda dëgg la gis nga Zeyna li ma la wax rek Seydina ba mu dugg see fekk ay soxna yonent bi toog ak ay njaboot mu ne du yoon mhm. en tant que soxna yonent ak ay doomam kenn du leen xàmmee ak ku dul jullit mhm. yàlla xam ne Seydina Omar lii mu wax dëgg la mhm. ci la wàccee aaya kon lépp loo xam ne ci alquran la nekk farata la ko yàlla la de maa farat naa fii kitaabin min cheyin alquran bàyyiwul dara xam nga yàlla bu ne yaa ayuha nabi e yow muhammad yow laay waxal de qul li azwaajika waxal say soxna wa banaatika ak say doom hmm. wa nisaa'il mu'minin ak képp koo xamante ne jigéenu jullit nga nga ne ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulillah hmm. wa iqaami salaat hmm. wa itaa'i zakat wa sawmu ramadan wa hajjul bayti liman istataa ilayhi sabila képp ku ko seede farlu def ko macha allah mu wóor na la yow inscrit wu nga ci diin l'islam en tant que femme en tant que jigéenu jullit ñu ne ah am na lu ñu teg sa kaw de dangaa war a muur say cër mhm. alayhinna min jalaabi bi hinna mhm. zalika an yoraf na yàlla mu ne loolu moo gën ci yéen dëgg la jigéen dafa war a muur ay cëram mhm. xam nga tey Zeyna boo toogoon dindi sa kol am koo xamante ni du jullit ngeen toog man bu ma ñëwee du ma leen xàmmee parce que léegi doomu jullit ñi sax ak ku dul jullit doo leen xàmmee ndax seeni solo parce que ki nga xam ne mooy doomu jullit yenn saa yi mu sol loo xamante ne mhm. yow yow yow da ngay am kersa Zeyna da ngay rus mhm. kon am tant jigéenu jullit mhm. war naa comporté woon noo xamante ne nii ku ko gis dina xam ne kii jullit la lu la koy may nga muur sa bopp tey sa karaw gi góor gi nga xamante ne dagan na la waru koo gis dëgg la ku dul sa papa wala say nijaay mhm. ñi nga xam ne leer na la ñii araam nañ la mënuñu laa takk mhm. ñooñu mën nañoo gis sa karaw mhm. waaye képp koo xam ne mën na laa takk dagan am na nijaay yu takk seen jarbaat de wala non ki bokk sa yaay ndey ak baay xam nga am na ñu koy def yaa ku bokk ak sa yaay ndey ak baay am na nijaay yoo xamante ni dañuy takk seeni i doom ku bokk ak seen bo am na gars yi ñu ngi koy joué sax pourtant par théâtre et boo xoolee ci commentaire yi ñu bari dañ naan lii dañuy jàpp ne amul parce que man ci commentaire yi laa koy liiree mais loolu moom dagg youtube bi ci commentaire yi benn sketch bu ñu tegoon mm-hmm. euh, nijaay bi kooku moo ki yaay ji ñoo bokk benn ween bu ñu nàmp mm-hmm. muy takk jarbaat bi maanaam doomu doomu rakkam bi waaye loolu daganu mais ci commentaire yi man laay gisee am ko mm-hmm. am ñu ne lii man am naa ko sama biir famille maa ngi koy dund sama biir famille mm. koo xamante ne nijaayam moo ko takk bokk ak yaayam benn ween bu ñu nàmp waaye loolu moom Zeyna daganut ñooñu moom daganul wax dëgg yàlla xam mhm. nga fii moom macha allah ku nekk ak sa aada bopp ku nekk ak sa diine bopp mhm. waaye daganut mhm. ki nga xamante ne yow leer na lañ mook sa yaay ñoo bokk ndey ak baay kooku war na gis sa karaw parce que kii daganu la àdduna du yàgg ba mu takk la waaye képp koo xam ne kii war na la takk waru gis dara ci say cër waru koo gis parce gis nga Zeyna tey xale bu jigéen bu romb mhm. góor sañ laa piis mhm. wala wax la yenn nii mhm. yaa ko ko may dëgg la ndax lan ndax ci sa sonin dëgg la wala sa comportement tey boo muuroo am caractère mel na nga war a mel bu rombee góor du la xool dëgg la mais xale yu jigéen ñi ñooy soloo noo xam ne ñoom ñooy attiré xale yu góor yi yow lu mu la wax rek yaa ko may parce que yow yaa ko provoqué parce que li nga xamante ne mooy say cër kenn waru koo gis ku du sa borom kër dëgg la ndax yow lislaam mhm. lépp loo gis dafa am fu mu ko teg mhm. lislaam mooy diine boo xamante ne mhm. macha allahu taala mooy diine bu yàlla reconnaître te léppam dafa rafet léppam dafa set parce que tey yow li ngay wane ci mbedd bi amul njëriñ kenn rek nga ko war a wan dëgg la mooy sa borom kër ki nga xamante ne lew na la mm-hmm. ci lan la la lewee xam nga tey buñ ne takk nañ ko nekku dañoo jur dañoo jël buum takk la ci kàddu borom bi allahu subhanahu wa taala mm-hmm. ci la la kii daganee ba nga ci mën ci bànneexu mm-hmm. te doo ci am bàkkaar dëgg la kooku rek moo war a gis li nekk ci yow soxna Zeyna mais beneen fu waru koo gis dëgg la xam nga tey nga nekk sa biir kër kon ni nga ko waxee sànq tey ku ma gis nii ma muuru mhm. mais bu ma nekkee sama biir kër mhm. man kese ak sama borom kër mhm. am naa droit dindi sama kol dëgg la am naa droit sol lu ma neex parce que man la ak sama borom kër dagan na ma ci kàddu borom bi allahu subhanahu wa taala te lépp lu muy xool ci man di ci bànneexu noonu lañu may bindalee tiyaaba waaye yow la nga xamante ne nii sa borom kër moo ko war a gis nga wane ko ci mbedd bi ñëpp gis ko xam nga léegi xale góor ñi balaa ñu laa takk fekk miin nañ sa lépp maa la wax loolu miin nañ ko ba nga xam ne yow buñ buñ la takkee indi la ci kër ga ku góor ki du am benn surprise du ko am dëgg la parce que jël nga sa yaram bi yëpp wane ko ci mbedd bi mhm. ña ko war a gis gis ko ña ko war te gis gis ko mhm. en tant que jigéenu diine mhm. en tant que jigéenu lislaam nga war a am noo mel xam ne yaay société yaay yaay yaay magasin borom bi allah subhanahu wa taala yow yaa jur yonent yaa jur xutbu zamaan te yow yaa war a jur njaboot kon njaboot jii di ñëw préparer leen mm-hmm. dafa am solo mm-hmm. nga préparer njaboot ji nga xam ne war nañoo ñëw mm-hmm. kon moo tax ma ne la soxna dafa am jabar am waaye soxna suusu dañ koy tànn waaye boo ci bëggee dal rek tànnal ma borom diine ndax borom diine dana am la muy ragal dëgg la borom diine bu la juralee ay njaboot dana jéem a sàmm seen cër te dana leen muur waaye muur googu du aaday naar du aadaay kenn farata la bu jógee ci borom bi allahu subhanahu wa taala képp kuy jigéenu jullit war na la soxna Zeyna. Mm-hmm. kon du du aada du sunna du dara mais farata la julli bii ni mu la war ni mu la waree mhm. weeru koor gi ni mu la waree mhm. noonu la la muuru bi waree mhm. te nee naa ku muuruwut boo dee force dinañ la muur jébbal la sa borom te yàlla dina la ko laaj kon jigéen ñi ñu ngi def bàkkaar bu doy waar di wane seen cër ci mbedd bi góor gu la gis bëtam tegu ci yow malaaka yi ñu ngi lay rëbb ba ba ngay dellu sa biir kër neexuta wax nag waaye dëgg moom dëgg la kullil xaq walaw kaana murra yonent bi mun a waxal dëgg doom sax da ngay dee wax ko la yaa Seyda macha allah am na solo lool lool. Mm-hmm. donc euh, li ma bëggoon a xam aussi mooy. Mm-hmm. parce que toujours da ngay wax euh, soxna Xadija da am dafa am fi nga xamante ne moom la ko si suñu euh, suñu suñu roykaay mi Seydina Muhammad teg ko fa jigéen la woon tamit. Mm-hmm. donc est-ce que mën nañu xam lan mooy li nga xam ne moo nekkoon. point fort am ci ki nga xamante ne moom mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que xam nga tamit jigéen bu nekk tey am na loo xamante ni maanaam dina nekk loo xam ne toujours sa sa borom kër bu koy gis ci yow. Mhm. wala boo koy boo koy def wala bu nekkee ak yow am na loo xamante ne toujours daa nekk na li koy gën a attiré ci yow. Mhm. nekk na loo xam ne tey boo ko boo ko defee rek lépp loo bëgg ci moom di nga ko am. Mhm. donc mën nañu xam lan mooy lan mooy li nga xam ne moo nekkoon point fort euh, ki nga xamante ne moom mooy euh, soxna Khadija ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. xam nga soxna Zeyna. Uh-huh. sallallahu alayhi wa sallam lépp a ma mat. dëgg la. nekk ki nga xam ne yàlla moo ko préparé boppam. Mm-hmm. ku ko gis bëgg ko kenn du ko gis di ko bañ mm-hmm. waaye sayyidatuna Khadija mm-hmm. bañ ko laajee mm-hmm. lan moo la neex ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan moo tax nga dugg ci waa ji soxna Khadija lan moo la daaneel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñett rek la ñu ne ko ñett yooyu mooy lan mu ne bi ci njëkk mooy az-zuhdu wal haya wa tuqaa mu ne li ma njëkk a daaneel ci waa ji man Khadija. Mhm. mooy waa ji dafa nekk ku dëddu àdduna. Mhm. ku dëddu àdduna. Mhm. ñaareel bi dafa nekk ku ragal yàlla. ñetteel bi dafa nekk ku bëri kersa. yaa ngi gis soxna Khadija ni ma wuteeg ñun suñ jamono ji ñun lan la ñuy xool ci góor ak boo. ak rafet mhm. waaye bu solee buddi gis nga ni muy mel mhm. waaye waa ji moo yor xaalis mhm. waaye gis nga waaj ji oto bi mu yor moo tax léegi loo gis pourtant sa genre gi am na bëri na <laughs> waaye divorce yi bëri na pourtant sa genre gi am na fi de ñi nga xam ne <laughs> dañuy xool ñu am diine ñi am kersa parce que man Eh, am na loo xam ne parfois damay toog dama ne yaa Seyda maa yéem parce que jamono ji léegi nii ñëpp ak Zeyna loo yam donc te yow macha allah nekk nga jigéen boo xamante ni ku am kersa nga mhm. nekk nga jigéen boo xamante ni doo siggi sax xool nit boo xoolee sànq maa ngi lay tooñ nee naa la sa borom kër dëgër na fit mhm. naka la def ba ñëw war a wax ak yow rek <laughs> ba nga ba nga accepté ko ànd ak moom donc pourtant am na fi mhm. am na jigéen ñi nga xamante pour pourtant ñu ngi toog mhm. dal et ngi xool toujours tey wala ñu ngi ñaan yàlla sax bu ñuy am borom kër mu nekk koo xamante ni mhm. au moins dina dina nekk di roy ci jikko yonent bi sallallahu alayhi wa am na ci ñi nga xamante ni aussi a roy comme euh, mhm. na jigéen ñoo xamante ne comme ni ma ko waxee sa genre yi nga xam ne dañuy toog ñoom lu ñuy ñaan yàlla mu may leen euh, góor bu am diine lu ñuy ñaan yàlla mooy mu may leen ku am yërmande et loolu moo ci ëpp solo yaa sayda tey sañ sa ku góor ki wala wala la mu yor lay amul solo. parce que mën nga dem ànd góor ndax na mu mel. bu dee dafa boo mais est-ce que respecté na la. est-ce yërëm na la. est-ce que mu ngi lay suturaal. et yaakaar naa lool base la ci li nga xamante ne moom mooy sëy. donc bu fekkente ne yaa ngi xool góor xamante ne aussi dafa mën a sañse est-ce que bu sañse la ko wan. moo ma jaaxal est-ce que yow yaa tax muy góor bu am alal est la mu yor man la cay defaral. Mm-hmm. donc tey boo amee nit ki fekk alalam parce que da ngay gis góor ñoo xamante ne tey dañuy am seen alal pourtant mhm. dañuy mën a sañse yàlla may na leen taar mais na ñu yore seen jabar kenn ñaanul yàlla am borom kër bu mel noonu macha allah kon loolu amul solo yaa Seyda dëgg la soxna Zeyna mhm. l'argent ne fait pas le bonheur dëgg la tey gis nga bonheur bu mhm. waxee sëy boneur moo tax mooy jàmm dangaa war a am jàmm ci sa biir néegu sëy am na jigéen ñoo xam ne seen borom ko yor na lu dul jeex te mayu leen jàmm. dëgg la. man pour man jigéen lii la war a duggee ci góor mhm. yonent bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam ataakum man tardaw na diinahu wa mhm. xuluquhu duggal ci góor ngir diine mhm. waaye ak ngir jikko ju rafet moo tax soxna Xadija bañ ko laajee lan moo la daaneel ci ñool màkka mu ne bi ci njëkk mooy waa ji dafa dëddu àdduna ndeysaan dafa dëdd àdduna góor bu bëggee àdduna rek sonal la yow wallaay maa la wax loolu ndax lu war a jënd ci lu rafet ñëw jëndal ko soxnaam mhm. boppam la koy jëndal mhm. ndax pour moom bu ko solee moom la moom lay gën a jàpp mhm. am na ay góor yoo xam ne bu ñu gisee lu rafet seen bopp lañ koy jëndal bàyyi seen bàyyi seeni soxla te pourtant si sa soxna la yelloo mu ne waa ji dafa dëddu àdduna lépp luy àdduna gisu ko lépp xolo bu ko neexoon mu tiitaru sama jabar moo yor xadija li mais yonent bi mosu koo wane ndax oyofam kon dafa dëddu àdduna mu ne ñaareel bi dafa ragal yàlla gu ragal yàlla boo ko amee santal yàlla dëgg la ndaxte yàlla mu ne ki gën ci nit ñi mooy ki gën a ragal yàlla akaramu inna akramakum indallahi attaqaakum kon nit ki góor bu ragalee yàlla dana la rusa dóor mm-hmm. dana la rusa saaga mm-hmm. dana la rusa toroxal mm-hmm. am na góor ñoo xam ne dañ lay toroxal fuñ toll di la saaga xooluñ ku toog xooluñ ku toogul ñoom ku mënti toog dañuy réagir ci saa si mais yar dafa am solo de am na loo xam ne tamit ci kon ragal yàlla bu nekkee ci yow mhm. di nga rus a def yenn yi sa soxna mhm. di nga rus mu xëy na la nijaay jox ma dépense nga ne ko yoruma mhm. am na góor ñoo xam dañuy xëy bàyyi seen soxna duñu lekk duñu naan duñ xam ci luñ nekk kon góor yow mi jigéen di tànn borom kër ngelawaay la waaye tànnalal say njaboot bàyyi ju baax baay joo xamante ne ëllëg say njaboot dañ na la yaay lu tax nga utal ñu papa ju mel nii mhm. kon yow mii jigéen loolu yow yaa koy ut mhm. kon xolal ma ku ragal yàlla mhm. kon ragal yàlla soxna Xadija gisoon na ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tax mu dugg ci moom ñetteel bi mooy mu ne waa ji dafa bari kersa alxayaa huwal iman yonent bi mu ne kersa dëgg-dëgg moom mooy xaaju ngëm yàlla ndeysaan gis nga boo amul kersa amoo dara mm-hmm. kersa moom la yàlla ak malaaka yi rusee woon Seydina Ousmane mm-hmm. radiallahu anhu mm-hmm. kooku dafa amoon kersa ci boppam ba du sangu bëccëg guddi lay sangu gis nga soxna Zeyna hmm. boo gisee àdduna bi xaw a yàqu hmm. kersa moo amatut hmm. kersa moo tax xale bu jigéen sol lu bon romb moroomu papaam bu ne ko waa sama doom li nga sol mu ne ko yaa ko xoolan ah, am na ku tontu loolu moroomu papaam ne ko parce que yaa ko xool ñàkk kersa amul kersa loolu moo tax mu tontu mais est que xam nga ni am nga ker am na kersa yoo xam ne dafa ëpp dafa ëpp parce que tey am na ci borom kër yoo xamante ni ñoom ak seeni soxna am na ci góor ñoo xam ne duñu nangoo siggi xool seeni soxna am na góor ñoo xamante ni. Mhm. guddi sax dañuy fay lampe bi dégg nga. Mhm. ndax kersa ak seen i <laughs> dafa am góor dafa am jigéen ñu mhm. koy wax. am na góor ñoo xamante ni guddi dañuy fay seen lampe pour bañ a jàkkaarloog seen i soxna. dëgg la du dëgg kersa yooyu nag yaa seeda ëpp na. xam nga loolu parce que sa soxna war nga koo gis. war na la gis <laughs> war na def ay feemam. yaay dégg yooyu yaay dugg fu nekk <laughs> yaay wax lu nekk. amee ah, loolu dafa waaye foofu moom du ma balaa góor ñi. parce que yow sa borom kër bu bëree kersa ba nga xam ne rus na laa xool. mais yaay jigéen yaa yor volant bi xooloon nooy def ba mu xool la am na loo xam ne sa liggéey la wax ji kay boo ah. yàlla bu ñu yem rek <laughs> yàlla yàlla bu kii bëri kersa ba du sigi xool nit kii tamit bëri kersa ba du sigi xool nit waaye loolu en tant que jigéen war na ko mën a dindi ci borom këram mhm. xam nga góor lu mu bëri bëri kersa yàqu dara parce que kersa moom mooy xaaju ngëm yàlla soxna Zeyna dëgg la kersa dafa am solo ci nit dëgg la gis nga kersa mhm. mooy tax sa jëkkër du la yuuxu ci biiri nit mhm. fu la fekk dana la wormaal mhm. ndax kersa gi nekk ci moom mhm. kersa moom mooy lépp sa mhm. saxaaba yëpp laaj na leen ñu wax ci kersa mais kersa moom huwal iman moom mooy ngëm yàlla gis nga boo ko amut yow sa ngëm yàlla des na waaw kersa boo ko amee sa di nga xam naka ngay comporté woo naka ngay solo mhm. parce que jigéen ji nga xam ne ragalul dox ni ñi di xool la mu sol kooku amul kees dëgg la kooku zaman fu lay doxee góor ñi nga xam ne dañuy dox xëcc seen tuba yi ba fii mhm. ñooñu amuñu kersa mhm. mais nit dangaa war a am kersa ci sa bopp parce que am na benn saxaaba bu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa ne ko waaye yonent bi bu dee man tey en tant que góor damaa toog ma nekk ak sama moroomu góor est-ce que kooku war naa gis benn cër ci man yonent bi ne ko waru koo gis de mm-hmm. mu ne ko même bu ma nekkee sama néeg man kase aw ma droit def yaramu neen mhm. yonent bi ne ko déedéet ndax kalay xool di borom bi allahu subhanahu wa taala mhm. war nga ko rus mhm. kon même bu dee yow kese yaa nekk sax warul tax nga nga nga nga bàyyeeku parce que da ngaa war a am kersa ci sa bopp ah mais mais bu fekkente ne yow ak sa borom kër yaa say daal xam nga borom kër waxuma ko xam nga borom kër waxuma ko kooku sa borom kër la kooku moom eh, yow yaay toolam am na ñoo xamante ne dañoo am kersa ba bëgguñu seen jabar di sol nuisette ah bon nuisette boobu neen kersa la ci moom daal seen <laughs> seen jabar yi noonu ñuy simmeekoo def yaramu neen mhm. wala euh, nuisette yi ñu muy yaraaxee noonu ñoom nee nañ kersa la ci moom am na ñoo xam bëgguñu seen i jabar di sol nuisette yooyu parce que dañ naa leen xaraam mhm. <laughs> ndax am na benn <laughs> yaa ngi tooñ de non mhm. am na benn ustaas boo xamante ni jabar ji dafa bind ci euh, ci téléphone am rek Euh, sama borom. comme ni ngi ni ñuy bindee parfois sama yëf. Mhm. sama alal genre yooyu quoi. Mhm. donc mu bind ki sama borom maanaam moo ko moom. Mhm. mais jëkkër ji bi mu ko gisee na koo mere. ndax lan mu mere fekk mu ko mu am téléphone am la gisul woon xaw ma mu ko abal ma sa téléphone mu woote. mu woote gis mu bind ki sama borom mu mere ko nekk da ngay ne ko da ngay bokkaale. ëpp na. <laughs> xam nga yooyu tamit ah dëgg la waaye xam nga tey lépp loo gis. Uh-huh. xam nga jigéen dafa am lu ko yàlla may te mayu ko góor. dëgg la. nee naa la góor moo xale bi doog a juddu ñoo yam mm-hmm. yow mi jigéen yaa koy naxtaane mm-hmm. xam nooy defeek moom mm-hmm. dañ koy nax góor bébé la da nga koy nax boo ko naxee rek am la nga bëgg ci moom mm-hmm. yow yaay jigéen yaa yor volant bi de mm-hmm. yaa yor fondement bi yaa yor lépp mm-hmm. kon lépp lu la naqari ci moom mën nga ko dindi étape par étape même bu dee ba ci biir néeg bi sax li nga doon wax sànq sax yow miy jigéen war nga koo mën a dindi ci moom war nga koo mën a dindi ci parce que jigéen nga jigéen dafa war a xam ne jigéen nga am na pouvoir bi la yàlla may te mayu ko góor dëgg la kon macha allah soxna Khadija ñett yi daal neexoon na ko lool ci yonent bi mu ne bi ci njëkk mooy az zuhdu waa ji dafa dënd àdduna mhm. ñaareel bi mooy attuqaa mhm. waa ji dafa ragal yàlla mhm. ñetteel bi mooy li nga xam ne moom mooy alxaya waa ji dafa bëri kersa kon sallallahu alayhi wa sallam xadija mu ne lii moom a gën a neex ci moom kon xadija tamit dal na ci moom tànn na yonent bi tànn na waaye xadija tamit tànn na Seydina Muhammad lan moo ko gënoon a neex moom ci ki nga xamante ne moom mooy soxna xadija waa xam nga Seydina Muhammad li ko gën a neex ci xadija mooy lépp lu mu dund ak moom ci biir vingt cinq yëpp ci bànneex la am na jigéen ñoo xam ne nga leen takk ñu lay fitnaal. dëgg la ba nga xam ne buñ la wanee ginnaaw sax yow yow yow doo leen namm. Mm-hmm. parce que seen wax ju bëri seen coow lu bëri fu ñu toll rek ñu ngi indi seen borom kër problème. Mm-hmm. mais soxna Xadija musta indi yoneen ci problème. dëgg la nee naa la ci biir 25 ans yëpp ci mbégte la. ci bànneex ci lépp lu rafet la mhm. waaye loolu yëpp dafa fekk sallallahu alayhi wa sallam jàppale soxna Xadija dëgg la kon góor dafay jàppale ki nga xam ne moom mooy soxnaam mhm. kon da ko ko yombalal mhm. yonent bi seere wu ko de daf ko yombalal soxna jàppale ko tamit ci njaboot mën a gis lu soxna Xadija di liggéey bari na jigéen ñoo xam ne ñu ngi liggéey lu rafet ci seen biir kër mais seen borom kër mënuñu koo gis noonu dañ koy gis dañuy def semblant comme si gisuñu li ngay def macha allah xam nga loolu tamit du dëgg du yoon. Mm-hmm. ki nga xam ne tey dalaa lew ci kàddu borom bi. allahu mm-hmm. subhanahu wa taala. en tant que yow mii góor. Mm-hmm. ñu muural la soxna si. parce que wax naa la li nga xam ne soxna yoreel na ko borom këram. te war na ko defal. ndax da ko war a tarbiyu. ndax mooy borom këram ndax moo yor caabi aljanna. waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne ki nga xamante ne. yàlla suñ borom daf ne ki nga xam ne moom mooy soxna si li la njëkk li la njëkk a war ci moom mhm. mooy lan nga jox ko can mhm. parce que tey boo doxee tey ba gis soxna si mhm. soxna Zeyna yenn saa yi nga dégg façon can yu nekk may nañ ko million may nañ ko lii may mais jigéen kenn mënu ko jënd dëgg la ndax boo gisee ñu ne may nañ ko ko. Mm-hmm. mënoo joxe joxe joxe joxe joxe ba jënd soxna si. dëgg la jigéen kenn mënu koo jënd. dëgg la kon may la ko rek lañ la mën a def. Mm-hmm. lan ngir kàddu borom bi allahu subhanahu wa la kon bi ci njëkk mooy yàlla mu ne wa aatu na sadaqaatihinna naxla. Mm-hmm. mu ne góor ñi jox leen jigéen ñi seen i can ba mu mat. sëkk dafa war a mat can moom. amul leb amul dara. yow joxal jigéen ji canam ba mu mat mhm. can boobu nag boo ko joxee mhm. ñu jël sëy bi takkee ko ci kàddu borom bi allahu subhanahu wa taala mhm. na la ñu muur ko indi ko sa biir kër dafa war a am lu la war ci moom waaye lan moo la waree war ci moom al mahru ginnaaw ba nga xam ne can bi paase na an nafaqatu mooy dépense en tant que yow mi góor dépense bi yaa ko war a jox soxna si waaye ci kaw soxna si topp sa bànneex ci kaw soxna si déggal borom këram mm-hmm. topp bànneexam mm-hmm. waaye jigéen joo xam ne benn ñaar ñette nga fay mm-hmm. ne maa ngi dem yonent mu ne bépp jigéen boo xam ne fay nga lépp loo def ci lu baax yàlla du ko nangu lu dul dangaa ñëwaat ba ci sa loxo borom kër kon jigéen du fay benn ñaar ñett nga mer fay dem sa kër yaay mhm. loolu baaxul ci jigéen kon yow miy góor kañ ngay yor dépense su xale bu jigéen bi mhm. bu dee fekk lan mu ngi wuy ci say bànneex ndax mhm. muural nañ la ko indi ko ba ci sa biir kër mu ngi topp say bànneex yow miy góor yaa yor dépense bu dee yow miy góor sa sa borom kër mu ngi sa sa sa soxna mu ngi topp say bànneex di lépp loo bëgg te yow gisoo loolu jàppalewoo ko waa xam nga tey Euh, lépp loo gis rek waxtaan la mhm. ndaxte yow mii góor mhm. da nga war a xool parce que ñun jigéen ñi ñu ngi xool ci soxna Xadija ñu gumba nag yaa say <laughs> xam nga ñun tey ñu ngi xool ci soxna Xadija mhm. mais góor ñi tamit nañu roy ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw ba nga xam ne yaa yor dépassam wa alal mawludi lahu na wa kiswatuhunna bil ma'ruf yow mi nga xam ne yow lañ jural doom ji muy ku góor ki dund beeg dépense beeg. Mhm. lépp lislaam sa kaw la ko teg. Mhm. yow mi góor yow yaa ko war a xam waaye na yàlla mu ne lu yunfiq zu siatin min siatihi mhm. wa man qudira alayhi rizquhu fal yunfiq mimma ataahu llah yàlla mu ne ku am joxeel nag ca la am waaye loo amul nag amoo ko doo ko sàcc man li may wax mooy soxna li ko war mooy heure bu xëyee na borom këram fexel ba lépp loo may indil na lew mhm. waaye bul ne demal nga indil ma loo ma indil baax na mën na mën nga yow mi soxna mën nga teg fitna sa borom kër mhm. mu dem uti loo xam ne lewul mu indil la ko parce que yow yaa koy poussé ci lu neexu yàlla mhm. yow yaa koy poussé ci sàcc wala ci leneen moo tax yàlla mu ne lu yunfiq zu siatin min siatihi wa man qudira alayhi rizquhu fal yunfiq mimma ataahu llah yàlla mu ne waaye nag li ma la teg yépp ne yaa ko war a jox soxna si ci loo am rek Mm-hmm. loo am bokkoo moom mm-hmm. waaye loo amul nag amoo ko mm-hmm. ndax inna allaha yarzuqu rizqa li man yasha wërsëg man yàlla maa koy jox ku ma neex ñii maa leen jox ñu bëri le ñii maa leen jox ñu néew le kon la nga am rek ci loolu rek ngay dundalee soxna si waaw moo tax euh, ki nga xam ne moom mooy soxna Aïssa dafa wax xadis bu am solo mu ne qaala daxala indu bintu Mm-hmm. utba mm-hmm. imraatu abu sufyan ala rasuli sallallahu alayhi wa sallam fa qaalat ya rasulillah mm-hmm. mu ne inna aba sufyan rajulun saxiixun mu ne laa yuctinii min nafaqa maa yakfiinii wa yakfi banii illa maa axadtu min maalihi bi ayri hilmihi fa hala alayya fi dalika min janaax soxna Aïssa mu ne dama mos a toog ci sama biir kër man ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Hind ñëw dugg si di soxna Abu Sufyaan mhm. ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi mu ne ko yonent bi man de damaa ñëw di la kamaak di la kalaamiseeg sama borom kër Abu Sufyaan mhm. yonent bi ne ko lum lum la def mu ne ko Abu Sufyaan di sama borom kër de góor gu nay la mhm. góor gu nay la góor goo xam ne duma jox dépense bu doy ba pare doy samay njaboot léegi nag man li may def man jabaram damay xaar ba mu génn dem mhm, mhm. kon xam naa fi muy def xaalisam mhm. ma ñëw yoot nànk jël yokk ci sama dépense lekk lu ma suur après suur samay njaboot ndax loolu yonent bi am naa ci bàkkaar sëy dafa am góor yu nay dëgg la ba mu waxee loolu yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko jëlal sa njekk ak teraanga waaye nga yam foofu te bul ëppal kon góor gi nga xam ne am na ko te nangu ko génnee am na mm. ñoo xam ne ñu joxe ko ci mbedd bi moo leen gën a ñu joxe ko seen biir kër dëgg la nee naa la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne xayrukum xayrukum min ahlihi mm-hmm. wa ana xayrukum min ahli mu ne góor gi gën ci biir mu ne góor ñi man maa leen gën ndax man maa gën ci sama biir kër daf ne mhm. góor gi gën ci góor ñi mooy góor gi gën ci biir këram mhm. man yonente bi maa leen gën mhm. ndax man maa gën ci sama borom kër ndax ci sama waa kër ndax lépp lu ma am dama koy bokk ak samay njaboot waaye kon kii daf ne ko sama boroom kër góor gu nay la du ma jox lu doy loo xam ne su ma ci lekkee man ak samay njaboot sax duñu suur léegi nag foofu nag dafa am atte góor gi nga xam ne am na ko mu leen na la ne yow mi di soxnaan sama borom kër am na ko waaye dafa nay mhm. ndax yonent bi mu naan loxo bi nekk ci kaw di joxe mhm. moo gën loxo bi nekk ci suuf dëgg la allazina yabxaluuna wa yamuruna na bil bux mhm. yàlla mu ne am na ñoo xam dañoo nay ba pare di digle nay da cee am foofu lislaam daf ne la bu dee xam nga fa muy def xaalisam te lam la jox doyut lislaam may na la nga dem jël waxuñ la nag nga dem jël loo xam ne di nga ci nat mhm. di nga ci fay bor mhm. di nga ci def lu ne kon jigéen ñi nuñ koy mhm. defee l'islam bëggul boobu yow dépense la la yoreel nga dem jël ci loo xam ne boo ci dollee dana la mat suur la ba pare suur say njaboot l'islam ne la ah mais mais su fekkente ne yaa say daa moo la war a solal waaw solalu la moo la war a jox sax nga jënd diw fekk liggéeyoo xëyoo gontoo joxu la nga jël am nga droit jël am nga droit jël mm-hmm. mais yonent mu ne bul ëppal mm-hmm. comme ça yow nga gis xaalis bi rek jëla profito jël lépp <laughs> ah bu boobaa tooñ kon da ngay jël lu yem rek yonent bi ne ko waaye bul ëppal mm-hmm. kon macha allah góor lépp lu leen jékkoo jarul yërëm de yaa sayda <laughs> xam naa sa saari moom am na ñoo xam ne jarul yërëm jël lépp benn yoon daal di yóbbu comme <laughs> doo ma jox te yaa ngi koy yor danga koy joxe sama morom <laughs> waaye bu boobaa nag tooñ nga soxna Zeyna bu boobaa tooñ nga hmm. kon da ngay jël loo xamante ne doy na la am na ñoo xam ne jarul yërëm dañoo jarul yërëm ci boppam comme comme que yërëmuñ la yow it boo demee ba jékku leen bu leen yërëm oh, xam nga buñ la ko joxul da ngay dem joxe ko feneen rek yaa sayda soxna Zeyna lépp loo gis rek dafa am atte dëgg la te yow boo ci jëlee lu ëpp am nga bàkkaar kon jël ci lu yam rek nga bañ a tooñ bu beneen yoonee nga jëlaat bu beneen yoonee bu la joxaatul lu mat nga dem jëlaat tuuti nga yoon boobaa di nga mat macha allah waaye beneen bi mooy mhm. ki nga xam ne mooy sa borom kër moo war a dëkkal dëgg la xam nga man tey d'accorduma góor gi nga xam ne am na ba pare waaye ñoom génnee joxe ak ku leen rey lañ yemale mhm. loolu baaxul mhm. xam nga tey soxna Xadija liggéeyul woon te terew ba mu nekkee ci biir këram mhm. arrêté na liggéey mais terewul li waroon ci moom Seydina Muhammad mu ngi ko doon def ci moom te yonent bi sax dafa nekkoon bañkat teewu da daan xëy di uti teewul danaan xëy du uti mhm. xoolul lu soxna Xadija am rek yam ci de ne mhm. xaaral ma noos ak moom mhm. bu xaalis bi jeexee ma dem bàyyi ko sallallahu wa sallam defu ko moom danaan xëy du uti ndax bañkat la woon dëgg góor da ngay nekk bañkat ndax dafa am loo xam ne lislaam sa loxo la sa kaw la ko teg beneen bi mooy yaa ko war a dëkkal ak sukkunu yow miy góor yaay dëkkal sa sa soxna kon dëkkuwaay bi nga xam ne dëkkuwaay bu baax lay doon mhm. ndax yàlla moo ne na askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum ee eh, yéen góor ñi dëkkal leen soxna yi fi ngeen dëkk mhm. yaa xam néegu ñax nga am mhm. yaa xam baraak nga am yaa xam loo mënti am rek kooku soxna si moo accepté rek fa nga dëkk dëkkal ko foofu dëgg la waaw waaye nag en tant que yow miy jigéen bu fa nekk ne diw étage lañ ko tabaxal diw lii la am tabaxal ma loolu nit ku nekk la mu am rek la am ndax kenn mayut boppam mais Seyda koo bëgg doo ko teg lu mu mënul tamit damay faral di ko wax de jigéen mhm. jigéen bu xas ba bëgg mhm. bëgg carrément mhm. wallahi du teg jëkkëram lu mu mënul xanaa mu fekk ne amul ba des na mais nit koo bëgg doo ko sa doo ko sonal yaa Seyda kon en tout cas dëkkuwaay ak dépense ak lépp yow mii di góor yow la war kon macha allah ku nekk am nga li la war ci sa morom macha allah kon yaay ak papa société lañ ci biir kër gi mhm. yaay ak papa ñoom ñooy société mhm. kon tey yow mi yaay mhm. am na nooy comporté woo sa borom kër sa doomi jigéen dinañ ne ah su ma amee borom kër kat. Mhm. bëgg naa ko toppatooyee kon ni sama yaay doon toppatoowee sama papa. dëgg la kon da cee am solo. Mhm. parce que kër gi école la. Mhm. ki nga xam ne mooy sa doom bu góor nekk ci kër gi. war na xool papa ni muy comporté woo yaay ci lu rafet. ne su ma amee soxna kat nii laa koy toppatoowee. dëgg la waaye loolu yëpp góor moo ci war a jàpp. góor moo war a am yërmande ndax sëy bi yàlla def ne almawadda wa rahma. cofeel laa def seen diggante. kon cofeel boobu ak yërmande boobu xam nga ni jigéen ji bàyyi léppam ñëw toog sa kër mhm. am na ci yow la bu ko amutoon du ko def mhm. kon yow mii di góor amal yërmande ci soxna si mhm. nga yërëm ko ba boo tukkee sax mu yàkkamte nga ñëw góor ñi yërëm leen soxna yi nee naa la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu tëddee ci lalu sukuraatam malaaka bi ñëw ne ko yàlla moo la tànnloo da nga koy fekk si wala da ngay toog mu ne arafiqul aala man yàlla ci yow laay ñëw de ndax yow yaay sama soppe ndax yow yaay sama xarit ndax moom mooy xabibal xaqi mm-hmm. wa sayyidil xalqi mm-hmm. moom mooy sang mbindee fii moom bi nga xam ne moom mooy yonent bi sallallahu alayhi wa mooy soppe yàlla mm-hmm. waaye di sang mbindéef yi waaye lan la doon wax istawsu bin nisaay xayran ay waaye yéen góor ñi tëdd ci lalu sukuraatam di fàttalil góor ñi war ngeen a toppatoo jigéen ñi mu ne dénk naa leen ci jigéen ñi yiw ak mbaax ndax yàlla sax nee na wa aachiruhunna bil maaruf jëflanteel leen ak jigéen ñi ak soxna yi teraanga ak njekk ak yiw jigéen dañ fàttalil góor ñi bu baax Seydina Muhammad Muhammad bi muy sukuraat lan la wax xale yu góor mu ne istawsu bin nisaay xayran mhm. ay waaye dénk naa leen ci jigéen yiw la déggagul dénk naa <laughs> dénk naa leen yiw wax danga koy ko répété ñu dégg la naa leen ci jigéen ñi yiw mhm. ak mbaax ak teraanga mhm. soxna Zeyna man dama ne yendoo dóor yendoo saaga yendoo xas gudd jot nga bëgg a raay <laughs> mënta sotti soxna Zeyna nañ waxante dëgg rek ndax <laughs> fi nga xam ne xam nga doom mu ngi mu ngi doom mm-hmm. mu ngi yàqoo fa nga xam ne loxo du ko làmb di ko daj muy nangu mm-hmm. waaw mooy waral doomu defet déggoo ma de dama ne doom mm. mu ngi yàqoo fa nga xam ne mm. loxo du ko làmb di ko daj muy nangu sëy bi buñ ko waxee ci kaw lal bi nangu moo tax dëgg la yow sa borom kër booy jëflante ak moom sa xol dafa war a sedd dëgg la dangaa war a nangu mhm. mais en tant que góor moo war a sedd sa xol mhm. neexal la mhm. jàppale la ba nga mën a nangu foofu la doom ju baax di sosoo soxna Zeyna yaa ngi comprendre xam nga tey ka nga xam ne borom këram da koo toroxal toroxal ko ba nga xam ne borom këram da ko doon sàkku mu bañ muy daw boroom këram di ko dàq ji muy daw am fu mu yegg rek daal di faxastalu daal di daanu Mm. borom këram foofu la ko fekk daal di sëy ak moom mm. moom tamit macha allah mu jël ci ëmb mm-hmm. ba mu fa jëlee ëmb mm-hmm. ba doom ji màgg mm-hmm. doom ji tamit am fu mu doon daw ñëw ba ci palaas boobu daal di faxastalu daal di faatu papa ji ñëw tiim doom ji na ko yaa ma ko may yaa ma ko xañ déggoo ma de wala déggoo ma doon dóoree yaay ja ba doon dàq yaay ji fekk dafa tàngal xolam bëgg ko sàkku waaw yaay ji di daw mhm. am fu mu yegg loolu laal ko mu faxasalu daanu mhm. borom këram foofu la ko foofu sàkko waaye mhm. xale bu jigéen bi jugaale ëmb doom ji màgg moom tamit am lu mu doon def ba ñëw ca place boobu faxasalu daanu dee dee waaw papa ji ñëw ne ko yaa ma ko mañ yaa ko xañ même place bi la moo tax mu ne yaa ma ko ah, mañ yàlla suñu borom la doon waxal wala place bi la doon waxal mu ngi mel ni tey ah. table bi laal ko mu daanu ok doom ji tamit même table bi moo ko laal mu daanu ok mu ne place ba yaa ma ko may yaa ma ko xañ doom ji fii la sosoo woon waaye tey fii la faatoo mhm. yaa ngi may dégg mhm. kon en tant que góor neexal a soxna si mhm. xam nga saxaaba yi ba ñu ñëwee ci soxna Aïssa ñëw fekk yonent bi sallallahu alayhi di ko seet si yonent bi nekku fa ñu ne soxna Aïssa ñu ne ko waaw mu ne yonent bi nan lay jëflanteeg yéen ci lu baax ak ci lu rafet mhm. saxaaba yi laaj ko soxna Aysa soxna Aysa ne dàll bu dagg yonent bi defar mhm. bu ñuy togg day ñëw di ñuy dëbbale mhm. di ñuy jàppale di dàq ak ñun di foog ñun ak oyofoon ci biir këram sallallahu alayhi wa sallam am na góor ñoo xam ne tey dañuy ñëw di toggale seeni soxna benn nit jógee fële ne diw ak a ragal jabaram ci biir kër ga laa ko fekk muy toggal jabaram aka ñàq fayda wala ñaan yëpp tubaab lay def ñàkk fayda mais oyofal boppam la dëgg la wàccee boppam sa soxna mënoo kaa wan lu ko saf. wallaay. mënoo ko kenn mënu woon sa moroom lu ko saf. macha allahu taala. xanaa ñi nga xamante ni ñoom dañ naan <laughs> bu guddi jotee mënuñu jàkkaarloog seen soxna foog ñu fay làmp yi. <laughs> xam nga yow da ngay tooñ man damay bañ. <laughs> am na de ñu jël ma dóor ma. yaa ngi dégg kon macha allah sa soxna buy dëbb ñëwal dëbbale ko. Mhm. buy togg ñëwal di ko waru la de soxna si la war. Mhm. mais dafay neexal sëy dëgg dafay neexal sëy bi ci yërmande la bokk tamit ak ci jonge nga ñëw lay ndil ko mhm. soxnaa yi sa mun ne yonent bi daal la bu dagg mu ñëw defar mhm. suñu togg mu ñëw di ñu dëbbale mhm. waaye lépp lum ñu mën a jàppale bu waxtu julli jotee da ko fay bàyyi dem julli macha allahu taala kon sa soxna mën nga di kaf ak moom xam nga tey li ma naan la Euh, loxo li muy làmb te di ko daj muy nangu mhm. nangu boobu dafa am solo dëgg la jigéen dafa war a nekk ku nangu dëgg la ci biir néegu sëyam mhm. foofu la doom ju baax ndax soxna Xadija nekkoon na ku nangu ku nangu macha mhm. kon tey bu dee yow dangaa tàngal xolu soxna si ba xolam tàng jër doomu defet rek lay indi mooy waral doomu bandi doomu agresseur doom buy jaay boppam ñu ne ndey ja ndey ja ndey ja fekk ah fa mu koo moo baaxul kon loolu góor ñi ñoo ko war a comprendre mm-hmm. neexal soxna yi mm-hmm. yenn saa yi sax sa sa sa sa borom kër war na la firi mm-hmm. war na la raxasal sa bopp loolu yëpp du ñàkk fayda xeetu jonge la sa bopp la jàppale sa soxna xam ne jigéen la dañ ko war a yërëm dañ ko war a jàppale ndax jigéen moo la jur tey boo seddalee xorom rek yàlla dafay seddal sa xol kon loolu dafa am solo dëgg la yaa Seyda macha allah ay waay wax nga lu am solo bàyyi da <laughs> bàyyi yéen a ngi dégg yaa seydna mhm. seddal leen suñu xol mhm. yàlla seddal seen xol yàlla yaatal wërsëg bi mhm. ah yàlla yëkkati leen ci kaw parce que wallaay tamit góor bu yëkkatee jabaram yàlla yëkkati ko mais booy suufal sa ja sa soxna tamit yàlla mën na laa suufeel du dëgg parce que yàllaa ñu boole kon nag jàppale leen ñu ah suturaal leen ñu sagal leen ñu waaye dimbali leen ñu waay yéenay suñu xarit donc yaa Seyda est-ce que mën nañu xam tey euh, soxna Khadija aussi naka la naka la doon dundee ak njabootam ci biir kër yi mhm. parce que tey mhm. euh, rafet na mhm. suñu parents yi ñu boole njaboot bi muy benn. parce que am nañu am na ci parents yi nga xam ne wax dëgg dañuy boole seen njaboot ne tey ki ci mag li ma bëgg mooy toujours na yërëm. rakk ji rakk aussi mm. na respecte magam et kenn ku nekk ci biir njaboot bi lu sa waay lu sa moroom soxla mm-hmm. moo xam sa mag moo xam sa rakk mm-hmm. lu mu la lu mu soxla te nga tanee ko ko rek mm-hmm. jàppalee ko ko léegi da ngay gis tey biir euh, kër gi parfois yaay yi sax ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy féewale ñi nga xamante ne ñoom ñooy njaboot bi nga yore ay doom ñoom ñëpp nga boole leen nàmpal ah bu fekkente ne wërsëg yi yamuñ nga gis ci ñi nga xamante ne parfois caat ba wala ki nga xamante ne moo nekk ci digg ba moom la yàlla may mu tane yaa ngi dégg nga koy gën a léeg taaw ba moom boo moytuwul foofu ay problème am fa mm-hmm. ñàkk a ñàkk a tuddante am fa parce que da gis biir famille ñu bokk ndey ak baay mm-hmm. toog un an gis du ñu waxante mm-hmm. wala nga gis ñoo xam ne deux ans du ñu waxante wala gis ñoo xam ne sax dañ naan la à vie bu ñu jarul jar euh, maak yow bu ñu fu ma jaarati jaratul nga fay jaar da ngay koo xam ne day génn àdduna ka mu bokkal ndey ak baay ñoom ñaar du ñu tuddante du dëgg mu nekk loo xamante ne lu doy waar la lu ñaaw la et yaakaar naa soxna Xadija am na nu mu yoree nu mu yaree woon ay njabootam ba ñu nekkoon benn yaa seydaa loolu lan nga ñu ciy macha allahu taala xam Khadija mhm. macha allah ay njabootam unité bi njabootam yépp a génnoon àdduna ba mu des soxna Fatima mhm. ba mu des soxna Fatima mhm. dañoo sama turandoo daa gaaw génn àdduna sa turandoo waa ñoom ñëpp soxna Fatima mooy ki nga xam ne moom moo ci gën a gudd fan mais moom tamit jikko yaayam la yoroon xam nga lu ñu naan doom ja ndey ja dëgg la ku ko bañ ku ne sa yaaya baaxul mais xam nga Fatima soxna sa sax daka daan fiire ak ak ak papa ji ah soxna Aïssa bu ñu daan fiire ndaxte <laughs> soxna Fatima dafa amoon macha allah jikko yu am solo. Mm-hmm. te soxna Khadija moom moo ko def. ci mm-hmm. moom xam nga tey ki nga xam ne moom mooy waajur. Mm-hmm. nekk ci kër gi mm-hmm. nga xale yi bokk benn geño mm-hmm. bokk benn ween benn butit bu ñu jugoo xam nga léegi xale yi tamit dañaa amatul yar xamatuñ lan mooy mag yaa ngi dégg yenn saa yi waajur yi sax dañuy def la leen war waaye man dama naa xale bu ci màgg xool sa bopp xaw a tolloog sa mag rek def ko morom loolu du dëgg du yoon mais ki nga xam ne moom moo la féetee mag jox ko palaasu mag parce que mag kenn du ko mag mën ngaa mag yaay mag baay mag mag ku nekk waaye mag moom kenn du ko mag kon macha allah toujours da rafetal xam nga wërsëg yàlla moo koy jox ku ko mhm. neex mhm. nit mayul boppam dëgg la tey li nga am tane ci ki nga dimbali ci ki nga xam ne yow yaa ko tane mhm. moo xam mag bi la moo xam xale bi parce que yàlla tey liñ naan euh, alal keppaar guy tuxu la ndénkaane la te danga koy delloo dëgg la yàlla yenn saay da ngay gis benn yi yàlla jël ci ne def ko kilifa xam nga jiitu njëkk juddu taxul nga doon taaw dëgg la taxul nga doon taaw mhm. taaw yàlla moo koy tànnal boppam mhm. mën ngaa njëkk a juddu mhm. mais fekk yoroo jikkoy taaw mais kër goo gis day am kilifa mhm. même bu dee xale bi gën a ndaw mhm. yàlla mun na ko tànn mu ne kii mooy kilifa famille bi dëgg la fekk yàlla moo la ko teg waaye muy yan bu diis dëgg la waaye boo xamul noo ko yoree rek mhm. da koy jël jox ko keneen dëgg la kon nag faaw nga nekk ko nangoo muñ ndax da nga dégg lu nekk da gis rakk yoo xam ne mën nañ la fekk saaga la def la na naka sudul noonu waaye da ngay nangoo muñ mais am na ci loo xam ne yaay yee koy joué yaa saydaa ci biir njaboot bi waa xam nga alxuraan daf ne yéen waajur yi mhm. ginnaaw ba nga xamante ne jur ngeen doom yi mhm. liggéey lii ci moom ba ñu mën a juboo ba nga xam ne bis boo faatoo ñi jenc la da nga mën a tàlli dëgg la mais bu dee tey am na neneen noo yaree say njaboot mhm. yow mii di waajur nga génn àdduna fa nga tëdd doo fa tàlli dañuy yendoo xuloo yendoo xeex di xaañante di jamante yow mii di waajur bi di nga ko yëg ci biir bàmmeel bi fekk yow yaa ko yare noonu say njaboot kon ñëpp boo leen juree yamale leen kii xale nga wan ko ne yow mi yaay rakk waaye mm. kii mag tamit jox ko cëru mag mm. waaye à général xale rak ak rak ak mag dañuy xuloo parents yi bu ñu ñëwee lu ëpp xale yi la ñuy jox dëgg mm. te xale kenn du ko jox dëgg ci kanamu magam même bu dee mag ji moo tooñ sa baay ba wéetoog moom nga ne ko ah kii sa rakkala de li nga def bu ko def mais xale bi la ñuy jël jox ko dëgg ci kaw magam te loolu tamit du dëgg du yoon ah mais bu fekkee xale bi am dëgg nag yaa Seyda même bu dee xale bi am dëgg kee magam la yow yaa ngi koy may occasion boo xam ne dafay gën a yeb magam boobu bu xamul ni kii sama rakk la ba mu war a def li mu war a def non ma mag ji moo tooñ dafa juum hmm. ndax ku lim ne aadama xattaaw doomu aadama ñëppay juum hmm. mais rakk ji bul jox dëgg bu ko jox dëgg ci kanamu magam hmm. bàyyil ba wéetoog moom en tant que yow mii di kilifaam mm-hmm. nga ne ko keroog kat yow yaa ko tooñoon lii bu ko defee te parce que bëgguma kaa jox dëgg ci sa kanam mm-hmm. parce que boo ko joxee boo joxee xale bi dëgg ci kanamu mm-hmm. magam rek yow yaa ngi koy may liberté boo xam ne dafay gën a yeb magam te nee naa la mag kenn du ko mag lu mu tuuti tuuti tuuti lu mu ñàkk ñàkk solo sa mag la dëgg la yow munoo fexe fexe fexe ba mag ko dëgg la yaa Seyda euh, sànq ci biir waxtaan bi aussi am wax nga lu am solo donc waxtaan bi lu ñu ci dégg lu ci bari mooy ki nga xam jigéen tamit foog mu ku ko jàppale mhm. pour mu mën a dem du dëgg donc parce que comme li ñuy wax toujours góor mënul dem bàyyi jigéen mais tamit jigéen mënul dem bàyyi góor donc ki nga xamante ni moom mooy euh, soxna Khadija mhm. yaakaar naa euh, kilifa gi mbokk mi asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah waaw soxna kontaan nañu lool ci seen liggéey bi laaxi macha allah ñoo la kontaan depuis nag depuis Arafat bi côté aj bi noonu waaw ba léegi ñu ngi leen di suivre vraiment tooyal ngeen suñu xol quoi dëgg-dëgg. macha allah yaay kan sëñ bi. waaw damay lëb tur bi quoi mais yal na leen yàlla fay. amiin yàlla taxaw lebal nañ la ko amiin. te seen jotaay ngeen di toog. billaay yowmal xiyaam dinañ ko toog. xam nga ndeysaan dëgg la voilà te nit ki waaw bu toogee àdduna di wax ay affaire yoo xamante ne maanaam tele teeso ba gisoo daal. Mhm. billaahi dëgg rek dëgg rek vraiment. Mhm. li nga ci génnee maam wax dëgg yàlla. Mhm. benn télé buy génnee noonu ci xam-xam. ndeysaan yaa ngi comprendre. voilà parce que seen émission ak émission maam As Mbaye. ñoom waay vraiment man daal vraiment maa ngi kontaan di rafetlu vraiment seen taxawaay. jërëjëf waay jërëjëf waaw yàlla yàlla na leen yàlla jàppale. amiin yàlla na leen yàlla fay aljana nit ñi bokk amiin kilifa gi euh, waaw waaw euh, am nga soxna ah man waaw. est que sa soxna bu sa soxna bu déglu yéen dama a bëgg koy gën a fonk. ndeysaan allah da ngaa baax. ce que yaa koy jàppale bu baax et di ko toppatoo. comme ni ko Seydina Mouhamad waxee. waaw maa ngi maa ngi góorgóorlu vraiment moom seen leçon yi eh. gën a yokk cofeel xarit boo leen jàppale rek ñu ñu ñu ñu dem incha allah dara duñu téye. yàlla baax na yàlla baax na. kontaan ñoo la gën a kontaan ñoo la gën a kontaan xam naa rek tey ni mu demee la sax mais mhm. incha allah dinaa woote waa gën a yaatu. incha allah amul benn problème jërëjëf waaye yal na la yàlla fay yal na la yàlla fay merci jërëjëf jërëjëf mhm. ah, macha allah kontaan nañ. kon soxna Zeyna mhm. am na góor ñi nga xam ne kon ñu ngi ñuy bàyyi xel mhm. bëgg a roy ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ni ñuy yoree soxna mhm. ci ni ñuy kafeek soxna yi ci ni ñuy seddalee seen xol macha allah wa taala nee naa la góor bu dem ba war a tàngal xolu jabaram na xalaat ne jigéen moo ko ëmb juróom-ñeenti weer jur ko fam ko war a juree sangee ko ca géej ga raxasee ko ca dex ba layndee ko ca piscine ba bu ko ko gis mën koo bëgg macha allah te kii ku dégg ni muy waxee mhm. xam ne xolam sedd na lool ndeysaan muy góorgóorlu ci sax naa mhm. noonu la foog ñu eh, foog xale yu góor yi jàppale ñu ah ngeen jàppale seen soxna parce que ki nga xamante ni tamit yaa ngi ko jëlee ci eh, eh, ci ci biir famem mhm. fekk ko mu nekk ci wetu yaayam et toujours li may wax góor bu dem ba takk jigéen rek toujours nay ku démb xam ne bi ngay ñëw di ko bëgg si am na ñeneen ñu ko bëggoon mais mu bàyyi leen ñoom ñëpp ñëw fas yéene ànd ak yow et toujours lan la ñuy ñaan am na jigéen ñu bari ñoo xam ne lan la ñuy ñaan tey góor bi ñuy sëyal nekk góor bi leen ñuy suul xam nga kooku bëgg na te kooku euh, pare na pour sëy euh, euh, ki mhm. nga xamante ne moom mooy jëkkëram donc buñ ko jàppalee rek dafay dem donc te mhm. li ñuy wax toujours kii amul li ñuy wax naan ñàkk réeroo moo am mhm. waxtaan amul réeroo amul ñàkk waxtaan moo am te bu ñu waxtaanee ak ñoom rek la ñuy juboo parce que ñoom ñooy ñun ñun ñooy ñoom tamit donc sànq dama doon wax lu am solo mooy li ma naan la tey jigéen bu egg fi mu egg rek góor a ko jàppale ñu ci bari góor moo leen jàppale comme tey euh, ki ñuy waxtaanee nii muy soxna Khadija tey li mu am bu ko amee fi mu toll fi bu ko tollee tey mm. euh, ginnaaw yàlla euh, yonent bi la Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc jàppale na ko mm-hmm. du dëgg mm-hmm. tey am na lu bëri loo xamante ni aussi gën gi mindeef def na ko ci ay njabootam du dëgg mm-hmm. même bi nga xamante ni soxna Khadija wan na ko ginnaaw tey ni mu waroon a taxawee njaboot bi taxawoon taxawoon na leen noonu yaa Seyda dafa am jigéen yu bari ñoo xamante ni tey dañuy am borom kër mm-hmm. ñu tàggoo ak moom mm-hmm. borom kër gi mm-hmm. nee na day venger wu ci yow ba day dem ba ci njaboot ba sax la war ca ñoom duñ ko def bari na et pourtant sa doom defu la dara dëgg la sa doom yow yaa ko jur du dëgg mhm. am na loo xamante ne yow miy baayam mhm. yow la war gis nga jigéen ñu bari ñuy sonn li ma la wax sàng mhm. li ñuy sonn yëpp pour seen njaboot la li ñuy sonn yëpp pour seen doom la du pour ñoom parce que da gis jigéen ñoo xam ne dañ naan la man sama doom bu lekkee rek baax na sama doom bu solo rek baax na sama doom bu nekkee ci jàmm rek baax na du dëgg donc danga nga gis góor ñi nga xam ne tey dañuy tàggoog sëy te euh, sëy ak tàggoo ñoo ànd du ñu dëgg du dëgg nee nañ yàlla suñu borom bëgg ko dagalal na ko mais bëgg ko mais comme ni ñu koy waxee bakkan la ku nekk tey bu fekkente ne jaar nga ak ak sa borom kër fenn fi ba yàlla euh, euh, weddi mhm. maanaam sëy ba tas mhm. donc da ngeen jàpp ne ndogalu yàlla la sa yoon mën na bañ a nekkat ci ki nga xamante ni moo nekkoon sa jabar parce que léegi léegi ay responsabilité nekkatu ki say loxo mhm. mais doom ji ay responsabilité ci yow la nekk du dëgg mais am na góor ñoo xam ne defanteeg seen ex jabar yooyu mooy tax ba dañ naan comme comme nee nga da dangaa dangaa mer ba dem fexeel ba yore doom ji xam nga waaw te am na te loolu dafa nekk loo xamante ni yow kii góor yow la war parce que doom ji day màgg te bu màggee dégg ay rumeur yoo xamante ni mm-hmm. peut-être neex ko ci baayam yaayam li war ci doom ji def ko parce que sa doom la yàlla la ko jox et loolu dafa nekk loo xamante ni c'est obligatoire da nga ko war a def lu am solo xam nga da mm-hmm. ne jigéen bu réussir daf fekk góor a ko jàppale mm-hmm. xam nga arab bi def ne wara ak kulli azimin imraa góor goo gis mu réussir dafa fekk soxna moo nekk ci wetam di ko réussir dafa mhm. fekk borom kër bu baax moo nekk ci wetam dëgg la jàppale mhm. xam nga man tey liggéey bi may liggéey mhm. sama borom kër bu ma si jàppale toon du ma ñëw fii toog di wax bu ko neexoon ma doo demati ca télé ba doo def te du ma ci mën dara te du mujj fenn dëgg la yi may dem di defi ay conférence fu nekk toog waxtaan dafa fekk ne moom moo ma ci jàppale sa morom yi nag buñ fi bëri woon ci ci Sénégal dëkk bi jàmm rek ay am de macha allah su ko neexoon ma ne ko am naa conférence dëkk sàngam mu ne ma demoo kon tamit du mujj fenn dëgg la waaye tamit dafa fekk ni liggéey bi ma bëgg daf ma ci fekk si aussi tamit pour jàppale ma moo tax tamit góor tamit moo war a mhm. jàppale soxnaam maa ngi koy sant di ko gërëm mhm. même bu ma ko waxul sax sant naa ko ci sama biir xool macha mhm. allahu taala <laughs> xam naa yow da ngay tooñ beneen question bi ma laaj ki nga xam ne dafa divorcé tey ak ki nga xam ne moom mooy soxnaam di venger wu ci xale bi dafay bëri mm-hmm. te xale bi defu la dara mm-hmm. xam nga sëy dagan na mm-hmm. mais fase yàlla wax na suratu talaa xam naa après dina ñëw ci thème bi li nga xam ne moom mooy fase waaye kon daf ko daganal ba pare sip ko moom mooy su ma amoon pexe sax du am yaa ngi comprendre kon tey soxna si yow takk nga ko ci farata ak sunna ngeen dem ba am problème ba divorcé jarul nga di dem tribunal di xëccoo doom di yéeg di wàcc yàlla mu ne wala tan sawul fadd la bay na ko mhm. ay bu leen fàtte teraanga bi doxoon seen diggante dëgg la ba ngeen di gisante mhm. di bëggante mhm. di waxante yu neex ku nekk xolam di neex ba nga ñëw ba ci ay waajuram ñaan si ko pour takk ko yàlla mu ne wala tan sawul fadd la bay na ko bu leen fàtte teraanga bi doxoon seen diggante xam nga yow tey xale bi defu la dara yaayam nga joteel mais l'islam sa dem na ba nga xam ne nee na jigéen même boo tàqalikoog moom boo demee ci suratul baqara mu ne boo koy delloo kër baayam na nga ko yab Mm-hmm. kon ba muy sëy si nañ ko yabee woon mm-hmm. na ko yeb teral ko defal ay bagage am ñëw ba ci ay waajuram ah maa bëggoon kat waaye mënatuma waaye seen doom a ngi nii mm-hmm. loolu alquran wax kon xam naa buñ duggee ci temu fase loolu yëpp dinañ ci dugg jigéen kenn du ko fase toroxal ko sànni ko xam nga mel ni ko benn mbalit boo xam ne bëggatoo ko te fekk yow yaa ko bëggoon ba sol sa daal dem seetu ko xale bi nag kullukum raain wa kullukum masulu an raain mhm. yow mii di papa mhm. yow la lislaam teg sa kaw ne mhm. yaa ko war a dundal yaa ko war a solal bu feebaree yaa ko war a faj loolu yëpp nga wañ ci sa loxo loolu moom yaag yàlla suñu borom di ngeen ko layoo parce que loolu lu la war la kon xale bi defal li war ci moom ndax ëllëg bu màggee nga mën a wax ni kii sama doom waaye toog wañ sa loxo bàyyi koog yaayam loolu du dëgg du yoon xam nga yaay moom ndeysaan bu doomam moom dana ko jara sax mu toog bañ a lekk doomam lekk yaay mhm. même bu toogee lekku dana ko jaral doomam lekk yaa ngi comprendre mhm. mais yow miy dugóor waroo seetaan lool mhm. parce que l'islam moo ko teg sa kaw kon boo see xam nga am na góor ñoo xam ne dañuy fase jigéen kon li nga wax di koñe xale bi foog ne xale bi lañ ko def ba xale bi màgg ñu bëgg a taxaw di xëccoo ne sama doom la amul sens parce que yaay ji moo sonnoon ci moom démb kon loolu defoo ko xale bi defoo ko yaayam mais sa bopp nga ko def ndax dinañ la ko laaj waaw ma lay sant Mm-hmm. ki nga xamante ni macha allah moom dafa njaboote ñu bare bari mm-hmm. macha allah chaque jour mu ngi jéema a teg xale yu jigéen ñi ci yoon ah di leen jéem a euh, jàngal àdduna mm-hmm. di leen jéem a xamal àdduna ah mama Dosso déggul déggul olof nag mama Dosso <laughs> je t'aime très fort est-ce que ay ready <laughs> donc bu nekk koo xamante ne wax dëgg yàlla euh, euh, tey ndaw yu bari war nañu mën a roy ci moom macha allah parce que dafa nekk jigéen bu yaat jigéen bu yaatal ak mama Gagne Siri mi nga xamante mu ngi fi nee naa a muñ la ndax sonal naa ko keneen ak keneen aussi sonal na ko Mm-hmm. donc jigéen da ngay war a nekk koo xamante ne aussi ku dëgër nga mm-hmm. ku la jàppale nga dem ku la jàppale aussi amal gëm-gëm rek mm-hmm. ah te te te te gëm yàlla donc nekk ci li nga war a nekk rek yàlla suñu borom dina la ci fekk si waaye ngalawaay ngalawaay yéen ñi góor jàppale leen ñu <laughs> parce que yéen a ñu war a jàppale yaa Seyda ñu ngi wax ne temps bi mm-hmm. euh, kii na macha allah soxna mm-hmm. Zeyna xam mm-hmm. lu ñu naan lu duf ci nag li xajul ci cin bi macha allah kon xam naa thème bi dañ koy tëj ci ki nga xam ne moom mooy suñu yaay Khadija ci baax bi ci yiw bi ci jullite bi ci muur ay cëram kon yow miy jigéen jëlal bon exemple ci suñu yaay Khadija. Mhm. jigéen dafay fonk boppam. Mhm. jigéen dafay muur cëram. Mhm. waaye jigéen tamit dafay dalal borom këram. macha allah boo liggéeyee rek bu doom ñi màggee rek dana feeñ. kon loolu lan moo la koy may. mooy yow tamit yow muy jigéen nga roy ci suñu yaay soxna Khadija waaye góor ñi tamit jàppale jigéen ñi ñu roy ci yonent bi sallallahu alayhi wa xam ne benn loxo du tàccu te benn lam du yëngatu mhm. ndax kii buy gas kii di suul mhm. du mës a baax kon kii buy gas ñëwal jàppale ko ci gas gi mhm. ndax bu boobaa affaire bi dana teel a sotti macha allah kon na ngeen ñu jàppale yéen góor ñi yéenay suñu kilifa yéenay suñu lépp ndax fi moom yàlla jox na leen ko ba pare mhm. kenn du ko xëccoog yéen mhm. kon macha allah duñ def lu dul jox Zeyna mhm. mu nuyoo mu tàggatoo ak mbokk téléspectateurs yi nga xam ne ñoom waaw kon dama leen di euh, jaajëfal bu baax a baax di amoon mbégte ak kontaane nag surtout ak li ma bokk ak yow plateau bi yaa Seyda donc euh, may remercier yéen ñi nga xamante ne yéen a toogoon seen kër di ñu seetaan di sant Adja Sophie bi nga xamante ne mu ngi France donc defal na ma xéewal boo xam ne xam naa leen lundi prochain incha allah fii laa koy taaj incha allah ndeysaan donc di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñi nga xamante ne ñoo nekk ci suuf waa régie Augustin sama frère sama xarit ah papi ak ki nga xamante ne moom mooy euh, caméra di li euh, sant bu baax ki nga xam ne moo nekkoon ci caméra bi di Iso ah Ismaïla mu yàq turam bi noonu tuddee boppam Iso <laughs> donc di sant ñëpp di leen jox dig daje lundi prochain incha allah ci beneen yow mi tudd Zeyna ba pare ne Zeyna nag maa lay tontu moom mi tudd Zeyna yaa Zeyna tàggat tool ah, macha allah man tamit maa ngi am mbégte ci li ma bokk ak yow plateau euh, nit ku baax nga nit ku <laughs> ñàkk kiñaan nga xam nga mm-hmm. yonent bi def na li nekk ci xol rek day feeñ ci kanam te macha allah lépp ngi ci yow mm-hmm. maa ngi lay ñaanal di am mbégte ak kontaante bu baax mm-hmm. waaye di nuyu sama yaay nga xam ne moom mooy njëmbat soose macha allah du tardé li nga xam ne moom mooy émission bi di nuyu tamit waa Kër Mbay Fall ndax yonent bi nee na xubbul watani min al iman bëgg sa réew ak bëgg fa nga dëkk dafa bokk ci ngëm yàlla kon maa ngi nuyu waa Kër Mbay Fall waaye sañse bi nag sama gorom moo fi jaar mhm. macha allah juufa ñoo na juuf moo ma jox brodé bu baax bi kay jël sama goro sama xarit sama yaay sama lépp jox jox ma daal lii ma sañsel doom def ba mbaax <laughs> kon ilaa maratil uxra Augustin day jël sama sañse wa ana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum taala wa barakaatu